alayhi rahmatu wa ridwanul baari ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabul adaan qablal fajar bunt bi wax ci wàllum nodd laata fajar gisoon nañ ci xadiis sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne gi sayyidina bilal radiyallahu taala anhu di nodd bu leen terek bu mu kenn di jëfandikoo li nga xam ne moom lay xëddee waa ak li nga xamante ne moom moo ci aju manam ci hadith bobu lolou leral na ci manam tamit ne li nga xamne moy al-fajrul sadiq ak al-fajrul kadir moy fajar bi nga xamantene da fay katch ak fajar bi nga xamantene dafa deug manam te mom moy fajar bu mujju gi nga xamantene ci bu lolou bu jote ci lañuy wax ne nañ bayyi xëbbi te daali japp wor naka nonu ci lañuy daali mëna julle fajar lolou gisul nañ ko ci tay bi wessu wallahi alhamdulillah نك نون غيسون نان حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب اك سيدت عائشه رضي الله تعالى عنهم مام نعم، نين النبي صلى الله عليه واله وسلم من ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ام مكتوم رضي الله تعالى عنه من ينتبي صلى الله عليه وسلم دفن النقب بلال دي رضي الله عنه من دي نردو تي kon nak na ngeen lek na ngeen nan ba xanaa mu daal di nodd nga xam moy moy sayyid Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu taala anhu naka nonu gisoon nañ ci buntu bi nga xam mo do wax nan kam baynal adhan wal iqama babun kam bay babun kam baynal adhan wal iqaamati wa man yantadiru al iqama mu am ci riwayat mu ne babun ak baabu comme ni nga xamante alxaafis eh, eh, ibn xajar moom rahimahullahu taala ni mu ko solowee mooy baabul moom ci riwaayam waaye eh, riwaaya yi gën a rek mooy baabu kam baynal azaani wal iqaamati maanaam buntu ana ñaata temps ñaata ban jamono lañ ban diir lañ war a xaar diggante nodd ak liqaam waaye tamit gisoon nañ ne ci am na ci nosax yi bu def wa man yantazirul ak ki nga xamantene mom moy nek li xaar te bu boba li muy tekki mooy dañuy tuddale mbiru ki nga xamantene mom moy nek li xaar euh lolu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu xamantene yenen ne bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bayna kull adhanayn salatun salatun salaatan liman sha'a manam dafa ne diggante bayna kull adhanayn salatun maanaam diggante ñaari nodd yu ne maanaam te mooy diggante nodd ak liqaam maanaam ñu wax ñaari nodd ngir tudd nodd ak liqaam ngir ne liqaam ak xeetu nodd la tamit maanaam euh, mu ne diggante ñaari yooyu yëpp li li man maanaam diggante ñaari yooyu maanaam diggante nodd ak liqaam bu ne am na julli maanaam julli naafila guñ fay def waaye mu wax ko ñetti yoon daal di ci teg li man sha ñeel ku ko sopp incha allahu taala dinañ ko gis ci eh, bunt yi di ñëw ci ne riwaaya bii day leer riwaaya yu koy gën a leeral imam al buxaari rahimahullahu taala dina ko indi ci kanam incha allah naka noonu gisoon nañ ci hadis saydna anas ibnu malik radiallahu taala anhu bi nga xamante ne moo doon wax naan bu noddukat bi noddee ci nodd maanaam timis nit ñi maanaam saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa daan njëkkante poto eh, yi bu ko defee ñu daal di julli ci kanamam fekk moom mu daal di génn fekk ñoom ñi ngi ci biir ci ci ci ñaari rakkaay yooyu laataa timis te diggante mu ne walam yakun baynal adani wal iqamati shay'un diggante nodd gi ak liqaam bi dara daanu fa ne maanaam loolu nag wax la joo xamante ne ci zaahiru wax ji moom la fuqahaa maliki ak shafii rahmatullah alayhim jàpp waaye fuqahaa xanafi ak xanaabila rahmatullah alayhim comme niñ ko leral won ñom niñ gëna jàpp ci riwaya bi ko gëna leral te motax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko te mooy riwaya ta imam Usman ibn Jabala ibn Abi Rawad di ko leral ak ak ak imam Abu Dawud at-Tayalisi rahmatullahi alayhima ñu jële ko ci imam Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala mu jële ko ci Amr ibn al-Ansari بجل سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من لم يكن بينهما إلا قليل سين diggante kat dara كتون لولو لنيو manam lolou kon day tegtale ne lu new mo doxon sen digeunte ni amoon na kon lu dox sen digeunte waye lolou dafa new lolou kon moy li nga xamantene ne gisoon nañ ko ci suñ jotaay bi wess walillahi alhamdu wal minna legi imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari dal ni babu man intadara al iqama buntu ki nga xamante ne moom mooy nag liqaam maanaam fii li nga xamante ne moom la fi wax moom mooy masalan imaam bi nga xam ne mooy imaamu jàkka ji am ci benn néeg bu mu nekk wala bokk mu dëkk fi nga xamante ne dafa takkook jàkka ji comme ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom këram takkoo woon ak jàkka ji naka noonu loolu moom mooy tamit li nga xamante ne mooy xaalu képp koo xamante ne sa kër dafa takkoo ak jàkka ji loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom moo tax mu na sa bunt bii moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy di nekk julli maanaam bu ñu noddee rek ëpp maanaam du farata du ne rek faw bu ñu noddee rek léegi léegi nga war a ñëw ci jàkk ji ci saa si ba ñu noddee waaye nag dana dagan nga daal di xaar li nga xamante ne moom mooy li xàmbe euh, donte ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy mazhabu ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne dem jàkka farata la comme muy euh, euh, ak wala boog julli mu wala ci boppam farata la loolu yëpp ñi nga xamante ne xattaa ñi nga xam ne dañoo jàpp loolu sax ñooñu tamit duñu war duñu farataal ci yow maanaam nga war a ñëw ci jàkka ji saa maanaam ne suñu noddee rek da war a ñëw waaye nag mu fekkente ne da ngaa takkoo ak jàkka ji mën ngaa nekk ba ñuy liqaam wala ñuy waaj a liqaam nga xam ne da ngay génn rek da ngay dugg rek après daal di dem taxaw ñu daal di commencé julli ndax liqaam bi moom mooy yëgle ni ñi ngi ñi ngi julli loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala no bunt bii di leeral masala boobu te loolu tamit euh, dañ ciy daal di xamee ni ki nga xamante ne moom mooy nekk nodd moom mooy nekk julli euh, mën na koo négee biir këram itam maanaam du rek buñ ne nit ki mi ngi ci biir julli feek mi ngi nekk julli loolu mën naa nekk bu fekkente ne tamit ci biir kër gi lañ koy defee loolu yëpp di leeral mbir moomu loolu moo tax imaam al-Buxaari rahimahullahu taala indi bi bi masala maanaam indi ko nii mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaabi ilay haddasanaa abul yaman te mooy alxakam ibnu naafi ah, moom mooy abul yaman eh, albahrani alximsi rahimahullahu taala moom ximsi la eh, moom nag eh, mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année gane àdduna cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al Buxaari yi moo solo ci moom lu bari ñeneen ñi ci nag solo nañ ci waaye dafa am dig-digle naka noonu mu ne qaala euh, axbar maanaam kon ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Shuaybun te moom mooy al imaam euh, abu bishr Shuayb ibn Dinar al Qurashi rahimahullahu taala moom mi ngi génn at mi ngi génn àdduna cent soixante-deuxième wala boog cent soixante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam solo nusxa boo xam ne Abul Yaman bii moo ko solo ci moom mu solo ko ci imam az-Zuhri rahimahullahu taala té muy hadith yi nga xamantene mom ci bopam lako daan bindul imam az-zuhri ngir mu jox ko kilifa yi mom am mu jëlé am az-zuhri moy al-imam muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri abu bakr al-tud al-madani rahimahullahu ta'ala gëna aduna 50e ane ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gëna aduna 125e ane ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dang mu nek imam bu mag ay haditham ñu ngi jëkëte sita moom mu ne qaala axbarani urwata ibnu zubair tuma imam urwata ibnu zubair ibnu al awam ibnu xuwaylid ibnu al asad al asadi euh, radiallahu taala anhuma di doomu sayidna zubair ibnu al awam radiallahu anhuma di di tamit doomu sayidat asma bint abubakar radiallahu taala an an il jamii maanaam mooy abu abdullah mooy daqantalam mi ngi gën a àdduna vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna ci li gën a wér mooy ci ci li wér ci jamono ji nga xamante ne moom la borom xam-xam fiq yu mag yi ca war a génn adduna te moom mii mu bokkoon ci seen biir bokkoon ci fuqahaa sab'a rahmatullahi alayhim maanaam juróom-ñaari borom xam-xam fiq yu mag yooyu nga xam ne ñoo nekkoon madinatul munawwara doon fa ubbee ci jamonoy taabe yi rahmatullahi alayhim moom moom mu ngi génn àdduna kon ci at boobu nga xam ne ci la ñu bari bari génne ci ñoom àdduna mu naan aïchatu ummul muminina alxumayra as-siddiqatu bintu siddiqatu bintu siddiq at-tayyibatu bintu tayyib xabibatul mustapha xabibatu rasulillahi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy aïchatu bintu abi bakr as-siddiq radiyallahu taala anhuma moom muy muy ñu koy alxumayra di ko ummu abdullahi muy dàqartalam mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seydna abu bakar radiallahu taala moo ko jull seydna ko jullee ñu ngi armeeri madina yi tul munawwara ala saakini afdalu wassalaam moom seydna seydatna aïcha ummul radiallahu taala anha mu bokk tamit ci muksiruuna yi maanaam ñu ëpp lu solo ay xadis ci xadis yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa di jenn jigéen dong gi nga xamante ne moom moo ci bokk moom 2210 mille moom mooy musnadam 174 xadis moom muttafaqun alayhi imam al buxaari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma bokk solo kon 174 xadis ci ay xadisam amma imam mus imam al buxaari mi ngi anha أنها قالت نينا كان نكون رسول الله لولي الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت بنبي المؤذن أجنا دي لول موي رواية يؤب تي روايات موي إذا سكت إذا سكت المؤذن ما نام كيغا خامتاني موي manam moy ki nga xamantene mom moy riwaya yu upp manam loolu la ñuy moy aji nord gi su noppee am na riwaya ida sakaba manam day daal di yor ya, manam boobu moy mooy su sottee maanaam bi bu sottee ci noppi nit ñi noddu ci ci limi limu don noddu ci nit ñi ba noppi euh bu ko sot bu ci sottee loola ba noppi legi nak mo mbir bil uulaa ci lu njëkk ga manam moy julli bu njëkk gi te moy min salatul fajar ci julli fajar manam moy noddu gi nga xamante mom moom la noddu te moy euh noddu gi nga xamne mom noddu ngir julli fajar lii tamit bokku na ci li nga xamante manam maanaam xanafi yi rahmatullahi def nañ koy sukkandiko di wax ne masalan ne euh, comme moom la ñuy njëkk a noddu maanaam kon noddu bi Seydina laa doon noddu ci guddi gi euh, radiyallahu taala anhu kooku doon woon noddu noddu gi nga xam ne moom lañ xam waaye lii nga xam ne moom la ci sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha jublu mooy rek ne maanaam nodd gu njëkk gi te mooy nodd gi ñuy njëkk nodd te mooy jullik fajar maanaam min bi moo tax min bi bayaani yala maanaam mooy day leeral ne ci fajar lañ lañ ko julle lañ ko nodde ci jullik fajar lañ ko nodde mu ne xaama day daal di jóg saa yu ñu noddee ba pare nag xaama day daal di jóg fa raka mu daal di rok maa day roko maanaam raka mu daal def ay raka raka tey ni ñaari raka maanaam comme ni ñu wax fa sajada sajada tey ni fa salla dañ mën a wax fa salla raka tey maanaam ngir wax ni dafa julli maanaam kon day julli raka tey ni ñaari raka xafifa tey ni yu woyof qabla lu jiitu salaatul fajri euh, jullik fajar gi maanaam euh, loolu bokk na ci liñ ci xam mooy ni ñaari rakkaay fajar dafa war a nekk ñaari rakka yoo xamante ne maam li gën moom mooy mu nekk loo yoo xamante ne dafay woyof comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa maanaam noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa baaxoo di ko def maanaam nga xamante ne moom buy julli day julli julli yu woyof naka noonu ñaari rakkaay fajar mën na nekk tamit ñaari rakkaay yoo xamante ne euh, dañuy julli julli goo xamante euh, maanaam euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci daanaka. waaye mu am ku mel ne al imam ibrahim ibnu yazid an-naxa'i te loolu moom mooy waxu ku mel ne imam at-tahawi ci xanafiye rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne noon julli fajar maanaam ñaari rakka yooyu maanaam dagan na mun maanaam jàpp maanaam mën naa gudd te loolu du wuute ak sunna waaye li nga xamante ne moom mooy liy sayyidat aïcha radiyallahu taala anha wax nii te moom mu nekk li nga xamante ne sayyidat xafsa radiyallahu taala anha comme niñ ko gisu woon ci xadiisam moom itam waxoon na ko am ñeneen ñoo xamantene ne nekk nañ julli yonent bi sallallahu alayhi eh, iya wa sallam ci ñaari rakkay fajar manam mom mo ñaar rakka la doon yo xamantene yu woyof la motax borom xam-xam yi daanaka ñom ñëpp ci ginnaw gi ñu doppo ci ne rahmatullahi alayhim ñeneen julli fajar mom ñaar rakka yu woyof lañ ciy def bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba woon na ci di ci tari ku mu ne mel qul ayyuhal ya wala qul huwallahu ahad comme nu nekk ci yenn hadisi naka noonu euh, nekkoon na ci yenn xadis yi comme tamit qul qulu amanna billahi wa ma unzila lana wa ma unzila ila ibrahima wa ismail ak yaay yu mel noonu tamit nekk ci sóoratul euh, ali imran maanaam naka noonu euh, mooy qul yaa ahlal kitaab yi mooy aaya yooyu naka noonu kon bokk na tam ci nga xamante ne baaxoo woon na di ko jàng moom mooy wala boog jàngale na ko bokk na ci njàngaleem mooy ne alam tara kayfa alam nashrah laka sadraka ak alam tara kayfa fa'ala rabbuka maanaam yii ñu wax yëpp nag benn rakka bu njëkk bi day jàng bii bi ci des mu jàng ba ca des maanaam lool lay tekki ginnaaw suratul fatiha am na nag maanaam am maaliki yi kum rawatina imaam bi muy imaamu malik rahimahullah ak ñu mbooloo ci fuqahaa u maaliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy jàpp sax ne euh, euh, ñaari rakkay fajar fatiha dong lañ cay jàng ndax li nga xamante ne moom la sayyidat aisha wax radiallahu taala anha ci beneen riwaaya ci xadis bi fi mu wax naan yeneen bi sallallahu alayhi dafay julli ñaari rakka ba nga maam day def ñaari rakka rakka dañuy gaaw ba nga xam ne day war nee na man sax dama naan aqara al fatiha ndax kii tari na fatiha maanaam comme que maanaam noonu la koy bàyyee xel ndax bàyyi ndax tari na fatiha loolu moom moo tax fuqaha yooyu rahmatullahi alayhim maliki yi rahmatullahi alayhim rawatina ci seen njiit gi imam bi ñoom dañuy wax ne kon maam maam ne ñaari rakkaay fajar kon fatiha rek lañ cey jàng maanaam waaye li nga xamante ne mooy li gën dëgër rawatina ne am na xadis yu dëgër yu wér yu leer yoo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam wax na ci rawatina ñu nekk ci saxeex ak surtout ci saxeex imaamu muslim rahimahullah muy leeral ne da ci daan jàng qul yaa ayyuhal kaafiruuna ak qul huwallahu ak ay yi nga xam ne moom lañ la léegi ci sourate Baqara ak Ali Imran ak wala boog ak wala boog li nga xamante ne moom lay wax ah, ci. Euh, mooy euh, euh, ak wala boog alam nas waaye yooyu nekkul ci foq ci ci fadailul quran la nekk beneen téere maanaam ci yi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci leer jàngale ne dañ ci jàng alam nashrah ak alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil maanaam yooyu yëpp mu nekk kon ay xeetu yoo xamante ne def na fa jàngee def na maanaam bu ñuy julli ñaar rakkay fajar def na ko julli waaye mun ci teg ne mu ne qabla salaatu fajr kon lu jaatu jiitu julli fajar gi maanaam fii li muy tekki moom mooy eh, lu jiitu julli suba maanaam fajar bii mu mujjee wax ne salaatul fajar yi maanaam li ci jublu mooy julli gi nga xam ne mooy julli faratay fajar tëj mooy ñaari yi nga xamante ne moom la ñuy tare ci kaw eh, mu ne mu mu ne baada an baada ginnaaw an yastabiina ci mu leer bir al fajar fajar gi maanaam ginnaaw gi nga xamante ne fajar gi biir na leer na kon fofu lañ koy defé ndax fofu tamit ci la kat bi joggé di di di nodd te it foofa la manam euh, la ki wara euh, xëdd fofu la war bayyi wara xëddam nak ki wara wor fofu la wara bayyi xëddam naka nonu bu boba tamit mu def naa julli ñaar rakkay fajar li tamit dafay daal indi benen masala manam mom moy né euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim manam li ëpp ci fuqaha yi rahmatullah dañuy wax ne Euh, ña maanaam euh, ñaari rakkaay yi dong moom mooy yi nga xamante ne moom lañu war a julli euh, ginnaaw fajar comme li nga xamante ne moom la ci beneen xadis li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñaari bu ñu xësee ba fajar bu ñu xësee ba jot ñaari rakkaa rek fi mën a nekk maanaam amul beneen naafila bu ñu fi mën a def lu dul ñaari rakkaay fajar waaye loolu moom mooy waxu jumhur ci xanafiya yi ak shaaf ak maaliki yi ak xanaabila yi maanaam xanafiya yi ak maaliki yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom bu julli fajar jotee maanaam bu ñu xësee ba noddu fajar ñaari rakkaay fajar yi rek lañ mën a def donte dinañ ñëw ci leeral ci benn masala bu aju ci loolu ba tey insha allah waaye fii ñu xam ne ñaari rakkaay yooyu mooy yi nga xam ne bu dara xewut yooyu rek ngay julli loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, euh, euh, amma ñi nga xam ne ñooy Shaafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ñetti wax lañ ci am maanaam ñoom mooy bu fajar gi xare fii maanaam comme ñëpp wax bi nga xam ne mooy wax ju njëkk ji mooy comme ñëpp maanaam bu fajar gi xaree dañoo war a mën a julli ñaari rakkay faj maanaam fajar rek war a mën a julli yi yëpp dañ koy tere wax ji moom mooy ne ñaari rakkay fajar ak la ñuy julli maanaam feeg jullee goo ñaari rakkay fajar man ngaa julli beneen naafi la loolu mooy beneen wax ji beneen wax ji ci des moom mooy ne ñaari rakkay eh, feeg jullee goo suba feeg jullee goo suba mën ngaa julli yeneen i rakkay naafi la imam an-Nawawi lolu la dëgëral rahimahullahu taala te mom ngeunk la ci fuqaha u Shafi'i rahmatullahi alayhim waaye li nga xamantene moy li upp ci borom xam-xam li ñu nootal te moy li nga xamne mom lañu wax moy ne te lolu bok na ci likoy leral moy li yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi la wax léegi beneen masala bi nga xamante ne tamit moom mooy ñëw fii mooy tey su fekkente da nga amee ay julli farata yoo xam ne nga war fay loolu bokkut ci manam bokul ci nga xamantene mom lañ te léegi mom lañuy ñuy rek nga julli ko gin manam ginnaw bu fajar gi xare lu bokku tak ñaari rakkay fajar ak ñaari rakkay faratay fajar yi te moom wax ñaar manam dañ ko wax tamit julli suba benen bi ci mom moy euh su fekente ne masalan shafa ak witar manam witar witaraguloo manam bu boba man nga julli sa witar doogu julli ñaar rakkay fajar benen bi ci dess tamit bu bo te boba witar ngay jital Euh, beneen bi ci des moom mooy su fekkente ne euh, da nga am maanaam danga nga nag léegi ñaari rakkay fajar yi nga ñëw ñu julli suba maanaam nga ñëw fekk imam bi julli suba te julleeguloo sa ñaari rakkay fajar bu boobaa li nga xamante ne moom ngay def moom mooy euh, boo sëlmalee rek mën ngaa daal di jóg dem taxawee ne julli ndax yenent bi sallallahu alayhi loolu jàngale na ko naka noonu tamit mën nga tamit xaar ba jant bi jóg carrément maanaam ba def maanaam ba jug maanaam ba def à ay vingt minutes quinze vingt minutes nga doog a mën a julli sa ñaari rakkay fajar balaa euh, balaa euh, zénith bi di maanaam balaa euh, jant bi di yegg ci diggu njolloor maanaam fii kon ci diggante boobu yëpp mën nga faa julli fay fa sa ñaari rakkay fajar waaye loola bu weesoo nag dootoo fayati ñaari rakkay fajar yi beneen masala bi nga xamante ne maanaam kon Euh, ñaar waaw maanaam loolu dafa mel ni lu ëpp ci masal yi ñu waroon a gis ci bunt boobu maanaam ci wàllu euh, ñaari rakkay fajar yi foofu kon euh, gis nañu leen beneen masala bi ci desoon moom mooy ne ñaari rakkay fajar yi mëneef na koo jullee ci kër gi maanaam te loolu mooy li gën maanaam jullee ko kër ga maanaam bu fajar jotee bu ñu noddee rek nga julli ko daal di dem doog dem ci jàkka ji bu boobaa nga daal di jullee foofu ñaari rakkay suba bu boobaa tamit dul dugg bi ngay dugg ci jàkka ji nuyoo gi ngay nuyoo jàkka ji maanaam muy tahiyatul masjid loolu bokkul ci yi ñuy tere ci julli bu fekkente ne fajar gi xar na ba noppi maanaam bokkul ci yi ñuy tere naka noonu boo demee nga jàpp ji ñëw julli yeneen ñaari rakka loolu tamit bokkul ci li ñuy tere euh, naka noonu euh, su fekkente ne euh, ñaari waaw kon waaw loolu loolu loolu yeneen yi ci des dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala mu ne summa topp it tajaa mu daal di tëdd ala shaqihi ci wàllam al aymani ngay féete ndeyjoor maanaam xatta euh, mbete yatiyahu mu dikki ko al muazzinu aji nodd gi lil iqaamati ci ngir liqaam maanaam loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee mooy tëddee wàllum ndeyjoor dafa nekk loo xamante ne lu ñu sopp la te loolu sunna la maanaam mooy tëddee ndeyjoor amma tëddee ca maanaam li nga xamante ne moom mooy beneen tëddin bi mooy tëddee wetu càmmoñ waaye am maa jaaxaan ak dëfiinu nag ñaar yooyu moom mooy yi nga xamante ne mooy ñaari tëdd yi nga xam ne sopp ñu leen te dañ leen a am maa tëdd bi nga xamante ne nag moom la tëddee maanaam tëdd euh, wàllum ndeyjoor mooy moo gën moom moom moo gën comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee nii yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la daan tëddee loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci suñu xadis bi beneen mbir bi nga xamante ne tamit ci bunti baat yi lañ koy jàngee moom mooy ne noddukat bi moom mooy toppatoo moom la ñuy jox mbiru maanaam lépp loo xamante ne mooy waxtu wi maanaam lépp lu aju ci wàllu waxtu kañ lañ war a nodd ak kañ war a kañ lañ war a liqaam loolu noddukat bee koy gérer imam bi du ko gérer loolu maanaam euh, kon euh, euh, loolu dafa war a nekk loo xam dañ ko war comme li xadis bi wax ne al mu addinu al mu addinu mutaman wal imaamu daamin allahuma fir lil allahuma ah, ah, allahuma fir lil mu addinina warshudil waaw warshudil aimma noonu la xadis la bu nekk ci sunan yi waaye borom ko ko rahmatullahi am wuute nañ maanaam liñ gën a jéng sax mooy ne eh, xadis bi dafa desee wér maanaam waaye eh, maanaa bi day dëgëral li nga xamante ne doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa te moom mooy ne al eh, mu addinu da mutaman maanaam mooy ne kii nodd moom dañ koy wóolu moom la ñu jox kóolute gi ngir muy toppatoo wàllu waxtu yi waaye wal imaam bi nag mooy daamin mooy nga xam ne mooy garanti mbir mi di maanaam nekk ci supervision affaire bi di ko superviser am mu ne nag kon nag yàlla na nga jéggal ñi nga xam ne ñooy noddukat yi te nga gindi ñi nga xam ne ñoom ñooy imam yi maanaam loolu euh, euh, xadis la bu nekk ci sunan yi euh, dégg beneen bi ci des moom mooy ne Euh, kon fii kon kon nag bu boobaa li nga xam ne moom lañ ciy jàngee mooy ne noddukat faaw daa war a nekk koo xam ne dafa war a xàmmee waxtu yi maanaam mu war a nekk koo xamante ne dafa war di xàmmee kañ la sàngam di dugg ak kañ lay génn ak kon naka lañ bu ko defee muy noddu si waxtu yu duggee loolu tamit dafa am day supposé mu xam ay mbir maanaam euh, su melut noonu dafa war a nekk koo xamante ne day sukkandikoo daa iman ci ku ko xam comme niñ ko gisee woon mooy euh, mooy azanul ama maanaam ne Euh, ki nga xamante ne mooy silmaxa bi moom mën naa noddu waaye su condition que njàccaar ne fi di ko bàyyi xel di ko di ko euh, di ko tegtal ak di ko wax naan ko waxtu wi jot na ak yu mel noonu comme niñ ko gise woon euh, fii tamit lu mel noonu la maanaam ki nga xamante ne moom mooy noddukat bi dafa nekk koo xamante ne dañ koy wóolu walla boog moom muy sukkandikoo ci koo xamante ne dafa wóolu maanaam koo xamante ne xam na mbir bi beneen mbir bi tamit moom mooy ne xam-xam bi nga xam ne mooy aju ci waxtu yi loolu xam-xam bu spécial la boo xamante ne ci ilmul falak la bokk maanaam xam-xam bi aju ci wàllu astronomie ci la bokk maanaam dafa am loo xam ne dañ ko war a xàmmee mooy ne euh, dafa am waxtu yi waxtu yi waxtu julli yi lii sax amaan na ci kitaabul mawaqit dañ ko waroon a gën a leerale maanaam mooy waxtu julli yi dafa nekk waxtu yoo xamante ne <coughs> Euh, dañoo dugg maanaam ay phénomène naturel ñoo koy leeral yow loolu waxoon nañ ko ci ñu tollee ci kitaabul mawaqit euh, mooy ne phénomène naturel yooyu boo ko xoolee ci la ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbir la nag yoo xamante ne ki jàng da koy xam ki jàngut dana ko xam maanaam dafa rek laaj nit ki maanaam bàyyi ko xel ñu won ko ko tegtal ko ko quelque jamono rek mu daan koy xam loolu nag mooy ne euh, waxtu wi yëpp maanaam ñaar fukki waxtu maanaam bis bi yëpp ak ñeent maanaam fajar ba fajar ñaar fukki waxtu la ak ñeent ñaar fukki waxtu yooyu ak ñeent nag bokkul maanaam loolu heure yooyu ñun dañoo am li nga xam ne mooy suñu heure yii nii eh, yi ñu mooy mooy midi jot na eh, treize jot na du dëgg mm-hmm. eh, suñu heure yooyu loolu heure yooyu bokkut yi ñu nekk di wax nii heure yooyu noonu ay heure la yoo xam bi la maanaam maanaam mooy bu ñu xaajalee bés ba bés Euh, yëpp vingt quatre heures la yoo xamante ne soo ko xaajee maanaam ñaar fukki xaaj ak ñeent yu tolloo boobaa vingt quatre heures la lay jox loolu mooy horaire yi nga xamante ne dafa aju rek ci horloge yi nga xam ne moom lañ xam ñun loolu ngir ne ngir tolloo la muy vingt quatre heures yu tolloo loolu nag euh, mooy suñu tollee ci bis yoo xamante ne guddi yi ak bëccëg yi dañoo tolloo bu boobaa vingt quatre heures yooyu day tolloo effectivement ak maanaam suñu heure yi ñu yor ci montre yi mais heure yi nga xam ne moom la ñuy jaamoo yàlla yooyu noonu mooy saatul falaki la mooy heure astronomique la maanaam woy lu aju ci wàllu astronomie la c'est-à-dire que guddi gi vingt quatre douze heures la bëccëg gi nekk douze heures quel soit ak lu mën a xew maanaam fukki waxtu la ak ñaar guddi gi bëccëg gi nekk fukki waxtu ak ñaar donte waxtu yooyu noonu dañoo nekk jamono ci jamono joo xamante ne guddi gi dafa gudd lool ba pare bëccëg gi gàtt lool wala bëccëg gi gàtt lool wala ba guddi gi gàtt lool bëccëg gi gudd lool maanaam comme jamono yii ñu toll maanaam mbir mi aju wut ci ci li mu aju rek mooy ne guddi gi dañ koy xaaj fukki xaaj ak ñaar bëccëg gi ñu xaaj ko fukki xaaj ak ñaar te ci kaw loolu buñ ko xoolee dañuy gisaale ne maanaam day topp règle bi ñu la waxoon ne la boo bëggee xam waxtu tisbaar kenn jot mooy da ngay xool jamono ji jant bi di jóg ak jamono ji muy tëdd nga xaaj ko ci digg bi boobu xaaj boobu boo ci tegee tuuti maanaam jamono jooju mooy diggu njolloor euh, boo ci tegee tuuti ci la fajar bi di jot ci la ci la tisbaar di jot maanaam euh, loolu nga topp ko ci calcul bi ñu la waxoon nga xam wéru tàkkusaan loolu moom moo tax tisbaar ak tàkkusaan ci dëkk yi nga xam ne comme yu mel ni dëkk yi nga xamante ne jat jan jant maanaam moment yi dañuy changer maanaam guddi yeeg bëccëg yi dañuy seen guddaay ak seenu gàttaay day day day soppeeku ci jamono ci ci yu mel noonu loolu moom moo tax ngay gis tisbaar beeg tàkkusaan bi di soppeeku et nekkul benn heure bu fixe par rapport ak suñu montre yi euh, mais par rapport ak euh, euh, horaire astronomique bi heure bu fixe la ci. parce que horaire astronomique mooy lan heure astronomique lan la mooy euh, tis mooy saatu falake mooy tis tisbaar même heure bi lay doon tout le temps mooy lan mooy bu jant bi nekkee ci diggu njooloor bi soppeeku phénomène ci phénomène naturel lay andi timis tout le temps même heure bi la mooy kañ mooy bu jant bi sowee fajar tout le temps même heure bi la mooy kañ mooy bu fajar gi xaree phénomène naturel yooyu mooy euh, tis euh, tak gée tout le temps heure bi la tamit maanaam phénomène astronomique mooy lan mooy bu à Hong Kong kii dañee carrément loolu nag euh, moo tax moo tax fajar ak timis ak maanaam fajar gi ak ak gée bi ñu koy nattee ci euh, ci crépuscule astronomique bi kenn du ko nattee ci crépuscule nautique bi kenn du ko nattee ci crépuscule civique bi ci crépuscule astronomique lañ koy nattee

mais dafa war a xam d'abord lu tax application bi baax et que beneen baaxul moom da ko war a xam lu tax réglage bii baax et que beneen réglage baaxul bii rek a baax parce que mënuñu amandoo maanaam jant bi mënta soog à dix-neuf quarante ñu dem ba vingt heures euh, vingt heures dix jant bi soowaat loolu mënta nekk ci benn place xonk-xonk yi mënta deñ te mu ñu naan timis gee jot na à vingt et une zéro zéro ba paré buñ démé ba 21h15 sa benen benen bi ci dess nga la heure gué mi ngi dogo jot nga ni ñoom ñaar ñep wax nañ dëgg lool man da ne parce que parce que phénomène bi benn yoon rek la mën xew en même temps mën mënta xewandoo deux fois ci même bis bi ci même point bi ñu ne loolu mënta ne kon kat bi dafa wara xamé lool képp nak ku jël responsabilité né da ngay nekk kat ba paré xamé wulo yoyu yaangi ci bakkar bu reuy parce que da ngay julli lo nit ñi heure bo xamante amana julli bi jotugul ngay dogloo nit ñi seen koor seen koor di leen ndékkiloo fekk heure bi nga waroon a noddu weesu na bu yàgg ñoom ñuy ndékki fekk dañu waroon a xëdd ce qui fait que dañuy xiifal te loolu day rejoindre lu yeneen bi waxoon ne sallallahu alayhi wasallam bëri na kuy woor fekk kooram gi yëpp xiif la rek ak mar bëri na kuy taxaw di naafila guddi fekk taxawaayam bi coonooy kese la parce que taraweex bi da koy def. fekk heure bi ñu ko war a def jotagul parce que julli gee sax jotagul faf ñuy tarawee taxawaayam yépp nekk ay ay ay ay ay neen ba pare koor gi nekk xiif ak mar kese loolu dañ ko war a xàmmee euh, noddukat bi nag bi nga xamante ne waxtu woowu mu war di noddu euh, maanaam kon ci ci ci ci horaire yi nga xam ne fala ki yàlla xatta xatta te nii ñu koy wel xatta xadara jubaa bi ñuy def ci horaire boobu lañ koy natte c'est-à-dire lan mooy lan mooy bu ñu jëlee guddi gi ak bëccëg gi bëccëg guddi gi mi ngi tàmbali timis gi mi ngi jeex fajar gi bu xaree bëccëg gi mi ngi tàmbali gi fajar gi bu xaree mi ngi jeex gudd timis gi bu su jot su jotee moo tax heure xadara ni muy toll temps bu ñu naan la une temps la maanaam ci falakiya astronomique du euh, tolo boudé hiver bi la ak été une heure de temps ci suñu horloge montre parce que hiver bi temps bi day heure ñu wax heures de temps ci suñu montre ce qui veut dire que soko xajé 12 yu tolo yu la à peu près minutes 40 minutes heure hiver par contre été bi day dem ba ay une heure une heure

Eh, ay mbir la yoo xamante ne yaa subhaanallaa léegi ñi nga xamante ne waxuma la mais ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, nekk ci haute instance yi ñu ci ëpp ci ñoom daanaka xamutuñ lii yàlla tere nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci jàkk yu ndaw ndawaan te dafa nekk loo xam ne ba maanaam dañ ko war a xàmmee parce que as euh, heure heure yi en fait ay ci moo tax ci phénomène naturel yi la aju te fante yàlla noonu la bindee àdduna bi bis bu nekk daf ko def ñaar fukki waxtu ak ñeent yoo xam ne guddi gu jot am na fukki waxtu ak ñaar yu wuute maanaam fukki phénomène ak ñaar yu wuute ci guddi gu jot am na bëccëg am na fukki phénomène ak ñaar yu wuute yu am sax seen tur li may wax ni astro yi xam nañ ko ah ñu jàng astronomie xam nañ bu baax a baax li ma nekk di wax nii. moo tax ilmul falak xam-xam boobu bokk ci xam-xam yi nga xam ne lañu war a yittewu moo tax borom xam-xam yi daan jàng ilmul falak ngay gis euh, ku mel imam ibnu abi zayd al qayrawani dina ci yeneen ñeneen ak ñeneen borom xam-xam di ko di ko toppatoo euh, euh, bi di dawee nitu am ci xam-xam yu yéeme. nan ni àdduna bi di dawee nan la planète yi di di tegaloowe nan la nan la ñuy nan lañuy ñuy nan la toggee ak climat yi lan moo tax climat bii di am fii climat bi am fële ak naka lay gérer nan lañ koy gérer moo tax nitu yàlla yu mag yi am am ko raw comme comme Abdal yi xam ne ñoom ñooy gérer climat yi ak planète yi ni ñuy positionné woo ak lan moo tax ñu positionné woo nii ak mi ñuy tourné yëpp dafa bokk ci seen xam-xam yi maanaam dafa yii nii nii dafa bokk ci yi nga xamante ne dañ ko war a xam maanaam li ma jot a wax ne ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju maanaam mooy le minimum mooy képp kuy nodd nag war naa xam le minimum ci yooyu mais léegi ñëpp ay altoppe ay altoppe koo ci wax sax yi ngay julli lu tax nga koy julli danaa la calendrier laa jënd ci marché bi jeex na ngeen kii mu ne la ngeen mu wax mu ne la imaam bi moom loolu lay defar ah. imaam bi jàkka ji ñoom loolu la ñuy def boo laajee imaam bi moom ci jëmmi boppam xamul lu tax danaan la ah c'est des savants qui l'ont fait ay borom moo xam ko def te ñooñu boo leen laajee te teguñu ko fenn bon léeg-léeg ñu teg ko ci lu mel ne gée bi lu tax ñu koy gàttal lu koy ñu eh, ak yooyu boo xam nga gars yi dañuy liggéey ji après il faut nga teel a kii dem seen yoon maanaam imaginer nga genre lay yu mel noonu ak yeneen ak yeneen maanaam eh, ji te lii may wax nii rek dëkk yi ci mucc bariwul ah. Sénégal comme ni ma ko waxee woon ci jotaay wala weesu de heure de temps bi ñuy def naan après guerre teguwul ci dara après timis teguwul ci dara te loolu amul mënta rek nekk réalité biir Sénégal Sénégal mënoo faa julli gee une de temps juste après timis julli gi baax mënta nekk foog mu mu nekk lu mu bon bon une heure quart une heure jëm kaw li gën a tuuti période bi gën a ndaw dina nekk une heure et quart jàpp une heure et demi jëm kaw. loolu wax la joo xam ne teguwul ci dara am na sax ñoo xamante ne dañuy abuser ba ne la boo jullee timis rek mën ngaa julli gee moom timis gi bu maasee rek mën ngaa julli gee te timis gi bu maasee li muy tekki ci ñoom mooy mu commencé lëndëm rek mën ngaa daal di julli te da gis ñi jàng sax baa xam ne ñoom jàng nañ ko de xataa lax dar yi sax nee na la mahibu shafaqi la fokk xonq-xonq yi dañ carrément te dañ koy jàng de mais bàyyi lañ jàng dem di déglu ji ñoo xamante ne xamuñu dara ñoom ñëpp nag ñu toppandoo leen ba pare imposer même mbir yooyu ci jàkka yi war nañu yàlla sàmm. xadis euh, bi imaamu euh, Malik solo na ko xadis numéro 316 ak 337. imam al Buxaari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro six cent dix-neuf mooy xadis bi ñu gisoon nañ ko ak xadis numéro dina ko indiwaat xadis numéro neuf cent quatre-vingt-quatorze taxrij bi gisoon nañ ko ci bi ñuy gis xadis numéro six cent dix-neuf wallahu taala alam mu ne baabun bayna kulli adhanayni salaatun liman shaa mu ne baabun bunte ngi nii bay na ci diggante kullu azanay ni ñaari nodd yu nekk salaatun julli liman sha ñeel ku ko ñeel ku mu sopp fii imaam al buxaari rahimahullahu taala tamit dafa indi bi bii maanaam buntu bi euh, euh, am na beneen bunt bi nga xamante ne moom la ñu jiitu woon te moom mooy kam baynal azani wal iqaama maanaam lan moo dox ci diggante nodd ak liqaam maanaam fofu mu indi fi jëmmi hadith bi nga xamantene mom la wara indi fi muy hadith saydna abdullah ibn mughaffal al-muzani radiyallahu taala anhu waye fi daf ci leral lu am manam li tax imam al-bukhari indi ko fi nak moy feure daf doon leral diggante bi nan la wara a tollu diggante nodd ak liqaam fi nak mu ci leral ne diggante noddu ak liqaam bu nek amna julli guñ fa wara a def manam di leral mbir mom kon ñu gis ne mbir mi du jëmmi mbir du jëmmi loolu la maanaam du jëmmi wax ji ci maanaam du jëmmi masala bi lay lay leeral foofu euh, fii tamit muy gën di leeral euh, kon ci wàllu euh, julli yooyu ba xataa julli yi nga xamante ne comme ni nga xam ne noonu la koy leerale ci yeneen yi ba ci julli timis comme ni ñu ko gisee woon ci xadiis Seydina Anas radiyallahu taala anhu bi nga xam ne romb nañ ko قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب حدثنا عبد الله ابن يزيد مؤمن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد ابن عبد الرحمن القرشي العربي رحمه الله تعالى مم ومكة جنة ومنك وبصرة ممنك مقرئ له مانم جنگ كتو القرآن بو مغلا رحمه الله تعالى بوكتي تابعي Euh, taabii nekk ki nga xamante ne moom moo nekkoon sëriñu waa Makka maanaam ci xaramu mak makki yi nga xam ne jàngale na euh, lu tolloog juróom-ñaar fukki at euh, jàngale na ko jàngale na alquran juróom-ñaar fukki at te bokk ci sëriñu imam al-Bukhari yu mag yi rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ca makkatal mukarrama ci weeru rajab euh, am na ne ci deux cent bi waaye li gën a wér mooy ci deux cent treizième bi la ci weeru rajab ca makkatal mukarrama euh, dégg nga euh, nga xamante ne basara jàngale na fa moom trente six ans alquran makka mu jàngale fa trente cinq ans maanaam ba pare bu doon jàngale alxuraan it naka noonu noonu la nekkee tamit ku daan jàngale xadis comme niñ ko gisee nii mu nekk ci sëriñu imam al-Bukhari yi nga xam ne waa kër Seydina Omar ibn al radiyallahu taala anhu ñoom ñoo ko goreeloon maanaam eh, moo leen goreeloon mu dëkk mag ah, eh, eh, Makka waaye cosaanam comme ñu ko gisee Bas Basara la léegi moom ñi mu soloo ci moom mooy ku mel ne al imam ibn awn ak kahmas bi nga xam ne ci lay solo mi muy kahmas ibn hasan ak al imam abu hanifa tamit soloo na ci moom naka noonu soloo na ci imam shobata ibn al hajjaj ak ku mel ne al imam al lays ibn saad ku mel ne abdurrahman ibn ziyad ibn anam al ifriqi ak ku mel ne al imam ibn lahiya ak al imam malik ibn anas ak ñeneen ak ñeneen euh, rahmatullahi ala al jamii naka noonu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo soloo moom moom mooy al imam al buxaari rahimahullah ci waa asxaabu kutubu sitta moom rek a soloo moom waaye ñeneen ñi ci des soloo nañ ci moom maanaam coloo nañ ay xadisam maanaam moo tax ay xadisam nekk ci kutubu sitta donte imam al buxaari rek rek rek rek moo soloo ci moom ndax at bi mu génn àdduna 212 wala 213 année dafa teel pour ñeneen ñi mën koo fekk mënu mën a jàngee ci moom Eh, naka nonu nak serigne imam al bukhari solo nañ ci mom manam imam al bukhari lay la day am serigne ñoo xamne mom ak ñoom dañu bokk serigne manam ku melni imam ahmad ibn Hanbal solo nañ ci imam Ishaq ibn Rawi ku mel al imam Abu khayza ak ibn Numayr ak ku mel harun al hammal ak mel imam Muhammad ibn Yahya Al duhali ak ñeneen rahimallahu al jamii eh, kon eh, moom dégg nga eh, ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala xaddathana kahmas ibnu ibnul xasan te mooy al imam abul xasan kahmas ibnul xasan al qaysi at tamimi rahimahullahu taala eh, moom eh, itam waa basara la rahimahullahu taala moom imam kahmas moom booy jaamkatu yàlla la bu mag maanaam mu dàqantalam nekkoon abul xasan mu bokk ci siqaat yu mag yi ci e, naka noonu jàngeen sol ci ci kibaaru taabii yi la bokkoon ci taabii yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wóor ñi maanaam ci wàllu e, dëgëraay moom soloo na ci saxaaba bu mag bi mooy Seydina Abu Tufayl radiyallahu anhu bi nga xam ne mooy ki mujjee génn àdduna ci saxaaba yi radiyallahu anhum moom solo na ci moom waaye solo na ci ñeneen ku mel ne al imam abdullahi ibnu shaqiq ku mel ne al imam yazid ibnu shikhir ku mel ne abdullahi ibnu burayda al as al aslami ku mel ni al imam al hasan al basri rahmatullah al jami ak ñeneen amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom bokk na ci mel ni al imam ibnu al mubarak ak al imam mu'tamir ibnu sulayman ak ku mel ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan ku mel ne al-imam Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi ak Mu'adh ibn Mu'adh al-Anbari ak ku mel ne Abu Abdurrahman al-Muqri euh, bii nga xamante ne moom moo solo ci moom ak ñeneen ak ñeneen moom mi ngi génn àdduna 149e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom mu solo ci an abdullahi ibnu burayda te moom mooy mu tudd nañ ko léegi ne moom la solowee ci moom te moom mooy eh, abdullahi ibnu burayda ibnu xaseb al aslami eh, rahimahullahu taala muy abu sahlin moom mi ngi gane àdduna quinzième année ginnaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci taabii yu eh, mag ñi rahmatullahi alayhi mu bokk tamit ci siqaat yi moom ku ci siqaat yi la bokk moom mu naan abdullah ibnu mugaffal radiallahu taala anhu saxaaba yenente bi saa sallam seydna abdullah ibnu mugaffal al muzani radiallahu taala anhu gisoon nañ ko ci suñ jotaay bi weesu wala jotaay boo ko jiitu mooy abu abdurahman dañ koy abu saïd wala abu ziyad al muzani radiallahu taala anhu mi ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, comme niñ ko gise woon moom euh, ci euh, ñi doon ci baya waa bayatu redwan ci ñooñu la bokkoon ay xalisam ñi ngi ci kutubu sitta leeraloon waxoon nañ ay mbirum ci suñu jotaay ci biñ ko mujjee gis mu naan na ko xaala nee na xaala wax na nabi yenente bi salallah ai sallam bay na diggante kullu adanayni ñaari nodd yu nekk maanaam mu judd jublu ci nodd ak li xaam salaatun julli bay na kulli adanayni diggante nodd ak li xaam bu nekk salaatun am na julli suma xaala mu wax asalisat ci ñetteel ba maanaam daan ne liman sha ñeel ko ko soob maanaam kon ci la ñuy xamee ne euh, li nga xam ne moom la ñu waxoon fële ne bay na kullu adanayni salaatun salaasan liman sha maanaam lii moo ko leeral maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko waxee mooy bay na kullu ni salaa bay na kullu adanayni salaa bay na kullu adanayni salaa liman sha waaye am na ci ay riwaaye yeneen mooy yoo xam te ne day wax ne diggante ñaari noddu maam yu nekk am na euh, euh, Euh, am na julli waaye boobu ci ñaareel bi ci la wax liman shaa am na ci boo xamante ne ci riwaayat bu nekk sunan an-Nasaa'i ci ñeenteel ba ci la wax liman shaa waaye loolu ala kulli xaalin ak lu mën ci xew li mu jaroon li li jaroon a leeral leeral nañ ko mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon insister ci di leeral ci ne maanaam diggante saa yu ñu noddee ba bala ñoo liqaam ñaari rakka xaj na fa war nañoo mën a julli te bu boobaa maanaam munu duñu nodd rek ne nodd nañ rek aywa nañ allahumma ba mu des bu fekkente ne nit ñi ñoom dañoo dëppoo ci loola te dañoo yàkkamte war a dem maanaam ak yu mel noona waaye su dut loola war ñoo mën a nodd war nañoo mën a julli ñaari rakka niki noonu xaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëg seegul comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna euh, te boobaa lii tamit day dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabu xanafi ak xanaa bi lay rahmatullahi alayhim ci ne kon euh, maanaam timis Euh, tamit bu ñu noddee nit ki bu ko neexee mën naa julli ñaari rakka laata ñuy euh, ñuy ñuy ñuy euh, ñuy julli timis gi ñuy taxawal julli gi ñuy liqaam te loolu tamit bokk na ci li lii bokk maanaam loolu tamit kon lii bokk na ci li koy dëgëral ngir ne wax ji dafa matale maanaam am la maanaam te comme am la nag te amul dalilu taxsiis maanaam loolu moom moo tax am maa nag ñi maanaam mooy luy tegtale ne am na luy préciser ni timis moom bokku ci maanaam euh, loolu ndax yi koy wax yëpp dañoo dañoo nekk ay xadis yoo xamante ne mooy xadisu màkka yi yi nga xam ne mooy comme xadis Seydina euh, euh, maanaam yi nga xam ne mooy xadisu imaamat Seydina Jibril alayhi salaam yooyu xadisu màkka la woon maanaam ne waxtu woo ci la julli woon timis waaye xadis yeneen yi nga xam ne mooy yi nga xam ne ñooy Madina yu Seydina Jaabir radiyallahu anhu ak ñeneen Ah, yooyu day leeral ne Seydina Abdullah ibn Amr ibn al ak ñeneen yooyu day leeral ne dañ doon julli timis maanaam këni euh, timis mi ngi dem ba fi gée di tàmbalee te mooy bi nga xam ne fa la xonk-xonk yi dañe mooy magriba shafaqi comme ni ko xadiis yi waxee xatta imam Maalik comme ni ñu ko gisee woon moom noonu la ko waxee woon ne euh, bu bu timis foofu la euh, jeexe te bu loola amee dugg nga ci waxtu gée wax waxtu timis génn na loolu gisoon nañ ko lillahi alhamdu wal minna euh, xadis bi imam al buxaari indi woon na ko xadis numéro 624 te fii la ko mujji indi maanaam xadis bi tamit bàyyi nañ ko dootuñu ko gisati insha allahu taala euh, ci saxiix bi euh, amma imam muslim indi na ko xadis numéro 838 imam abu daawud indi na ko xadis numéro 1283 imam at-tirmisi indi na ko xadis numéro 185 imam an إن نقل نمرة 681 إمام ابن مالي نقل نمرة 1162 أما إمام أحمد بن حنبل نقل نمرة 6790 20544 20567 20574 ومن هنا كوا أصحاب كتب ستنجم نعم، إن نجم رحم الله الجميع من باب من قال ليؤذن ليؤذن باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد maanaam bunt mooy baabu bunt man xaala baabu buntu man ka xam ne xaala dafa ne li yu azzin nay nodd fi safara ci tukki gi mu azzinun noddkat waahidun bay benn maanaam gis na gisoon nañu ne noddkat yi li nga xamante ne mooy li jaaru mooy euh, mu nekk maanaam li nga xam ne mooy li li li li li su lii mooy kenn rek nodd loolu mooy li mës a am euh, jamono yenente bi sallallahu alayhi wa amul woon ñaari noddkat yu taxaw di noddandoo loolu amul woon jamono yenente bi sallallahu alaihi wa alihi wa ñi ko ñëk def moy wa banu umayya comme ni nga xamantene non la ko ludul ben di ñaar ci borom ko xam rahmatullah alaihim di leral lolu ben la ñaarel bi ci dess mom moy ne euh, bu fekente ne comme ni imam ash-shafi'i di wax rahimahullahu taala te mbolo ñu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alaihim and ak ñom and ak mom ci lolu ngir lu ko moy ne bu dee jakk ji juma ji dafa reuy reuy reuy comme comme yenn juma yu ngand yi comme masalan tay bo xoolee màkk gis nga kaaba gi ni juma ji ngandee bu ñu amul ay micro amuñu haut-parleur loolu pour benn noddkat taxaw fee rek noddu xataa waa jumaa ji yëpp dégg ko rek day jafe donc maanaam ci lu mel noonu euh, li nga xamante ne moom mooy jaadu mooy mu amandoo ay noddukat yu bari yu taxawandoo ci ay ci ay ci ay coin ci ay ruq bu ko defee ñoom ñëpp ñu noddandoo ku nekk nodd bu ko defee wàll ña féeti ci dëkk bi wàll googu mën laa dégg maanaam loolu moom loolu moom lu rafet la lu ñu rafetal la waaye li gën li nga xam ne moom mooy ñoom li ñu li ñu gën a taamu maanaam bu dul ci cas de bi borom ko xam ne rahmatullahi alayhi mooy noddukat noddu ginnaaw ga bàyyi keneen ñëw noddu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee comme tey gisoon nañ teqantal bi tamit ci di leeral ne noddukat yi maanaam bu dee ci ci jullit timis jullit fajar la moom lay am maanaam no nodd googu ci lay amee. Euh, euh, loolu moom maanaam lii moom mooy li nga xamante ne moom lañ la waxoon ne la moom lañu xam xamunu leneen dégg nga wallahu taala lam léegi nag fii nag imam al-Bukhari rahimahullahu fii day leeral ne benn maanaam fii li mu ci namm ne na nekk benn noddukat kese li mu ci namm rek mooy nañu nodd benn yoon kese maanaam même xattaa bu dee euh, comme que comme que kii la dañoo tukki te dañuy nekk ci kii ah, maanaam xam nga bu ñu tukkee kenn ku ci nekk ñu obligé maanaam di dajaloo di julli julli mbooloo ndax tukki lañ nekk waaye euh, loolu tamit du war a tax ba mu am ay noddukat yu baree bari ku nekk di taxaw di nodd ngir ne maa ngi waaj a julli kon nañ nañu nodd déedéet maanaam loolu lay wax te euh, noddukat bi tamit kenn lay doon comme ni nga xamante ne maanaam bu kenn noddee rek day daal di baax pour ñëpp loolu mooy li nga xamante ne moom lay wax fii te it ñu julleendoo julli mbooloo tamit mooy li gën comme ni nga xamante ne insha allahu taala danañ ko gis ci xadis bii di ñëw muy xadis sayidna malik ibnu lxuwayris radiallahu taala anhu ne qaala lisnaadil muttasili fi awal kitaabi lay xaddatanaa mualla ibnu asad moom fii lañ koy mooy ñaareel yoon biñ koy gis ci euh, saxex bi mooy abul haytham al ami al basari taala euh, moom Euh, waa basara la woon nekk ci ta bokkoon ci taabii taabii yi nekk koo xamante ne ku imam al-Ajli ne cheykhun cheykhun basariyun siqatun kayyisun wa kaana mualliman dégg nga euh, moom euh, sëriñ waa basara la maanaam sëriñ la boo xam ne waa basara la ku dëgër la ku wóor la ku muus la woon ku amoon xel la woon ba pare jàngalekat la woon imam az-zahabi rahimahullahu taala ne sabtul zu salah ku deugal ba pare borom cellte tela rahimahullahu taala xaafis ibn xajar rahimahullahu taala ne siqatun sabtun qala abu hatim lam yukhti illa fi hadith wahid manam ku wor la ku dëgër la nek tamit ko xamne comme li imam abu hatim wa rahimahullah mustajum ci hadith lulul ben hadith xadis kese ci lu mësa djumé te loolu day wone ku dëgër la comme ni imam alxaakim waxoon ne siqatum ma'mun maanaam ku dëgër la koo xamante ne ku ñuy wóolu la moom euh, am na maanaam moom mooy frère ku ñuy wax bahz ibn asad euh, moom euh, moom ñoom ñaar frère la moom nag moo gënoon a ndawe bahz moom moo ko gënoon nekk mag rahimahu alayhima moom solo na ci ku imam ku mel ni Abdul Aziz ibn al Muxtaar ku mel ni Abdullah ibn al Musanna al Ansaari ku mel ni Wuhayb ibn Xaalid te moom lay solo ci suñu xadis bi ku mel ni Yazid ibn Zuraya ku mel ni Hamad ibn Zayd ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk tabaqa rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo maanaam ci ñoom ñoo solo ci ñoom ñoo solo ci moom nag mooy ci waa asxaabu bu sitta mooy imaam al-Buxaari ak euh, moom moo soloo ci moom ci waa asxaabu kutubu sitta yëpp imaam al-Buxaari rek a soloo ci moom imaamu Muslim imaam at ak imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibnu Maaja ñoom soloo nañ ci moom waaye dañoo jëlee ci keneen mu soloo ci moom euh, kon dañu gis ne xadiisam ñi ngi ci asxaabu ñi ngi ci kutubu sitta ba mu des ci sunan imaam Abu Daawud imaam Abu Daawud rek a ci moom rahmatullahi alal jamii moom mi ngi génn àdduna Euh, ci weeru koor ci atum euh, deux cent dix-huit ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, donte am nañu ne deux cent dix-neuf yi waaye deux cent dix-huit yi bi mooy li gën a siiw te mooy li gën a dëgër insha allah moom mu ne qaala xaddathana Wuhayb wax nañ ko léegi mooy al imam Abu Bakar Wuhayb ibn Xaalid ibn Ajlan al-Bahili rahimahullahu taala moom mi ngi gën a àdduna cent septième année gi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu bokk ci siqaat nekk imam bu mag nekk xaafiz ay xadi euh, ay xadisam nekk ci kutubu sitta xadis euh, bi comme xadis bi ko jiitu ñoom ñëpp waa Basara xadis euh, bi ko jiitu ñi fa nekk ah, waa Basara xadis ah. mm-hmm. bi tamit an ayub te moom al imam ayub ibn kaysaan as-saxtiyaani abu bakar nekk dàqantalam gane àdduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu soixante-sixième bi la mi ngi génn àdduna cent trente-et-unième sallallahu alayhi wa sallam ay xadiis am nekk ci kutubu sitta muy imam bu màgg boobu rahimahullah an abi qilaaba muy taabii bu kawe boobu rahimahullahu taala muy abdullah ibnu zayd ibnu Amran Euh, al jurmi al asdi mooy tamit waa basara la rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent quatrième année am na ñu ne ba cent septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an malik ibn al xawayris muy boobu radiyallahu taala moom mooy borom euh, saxaaba bii nga xamante ne xadis bi muy bi nii ci la siiwee ci ay riwaayaat yu wuute ay ndollante ci yenn yi ak yu mel noonu mooy euh, xadis euh, bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dinañ ci ñëw insha allahu taala euh, mooy abu suleyman malik ibnu alxawaris ibnu xashish ibnu awf ibnu jandaa aljurmi albasari allaysi tamit dañ koy allaysi albasari moom waa basara la rahimahullahu taala moom tamit saxaaba la dafa ñëwoon ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon fa ay fan comme nii nga xam te noonu lañ koy gisee Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon ko ci mu delluwaat waa ci waa këram moom ak ña nga xamante ne ñooy bi ñu àndaloon moom mu ne ataytu dikkee naa annabi yonent bi sal annabi yonent bi sal moom mi ngi raadu soixante bi sallallahu alayhi sallam ay xadisam ñi xadisam bi mi ngi ci kutubu sitta dégg nga moom mu ne ataytu sallallahu alayhi Wasallam ataytu dikkee naa annabiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii nafarim ci ak kuréel min xaw mii ci sama nit nafar nag maanaam baat la boo xamante ne day tekki ñetti nit jàpp fukki nit maanaam mbooloo moo xam ne ñetti nit jàpp fukki nit moo tax ñu naan nafar maanaam mën nañu wax salaasat nafar maanaam ñetti nit ñu am mbooloo wala ñu wax arbaa wala yu mel noonu bu ñu nafar dañuy wax tamit naf yiir léeg-léeg euh, waaye mënuñoo wax par exemple ay suruna nafar maanaam ñaar fukk ba pare teg ci nafar mënta ne nafar boo ko fekkee diggante ñetti nit la rek ak fukki nit du mënta weesu diggante boobu euh, dégg nga kon ci min xaw mi ci sa moom nit nee na fa axam naa ñu daal di taxaw ñu daal di sax indahu fa moom ashrina laylatan euh, ñaar fukki guddi loolu bokk na ci liñ ciy jànge moom mooy ziyaare nitu yàlla yi ak borom xam-xam yi rahmatullahi anhu wa radiya anhu maanaam loolu baax gi nga xam te ne moom la baax ay yittewoo gi nga xam ne moom lañ ko war a yittewoo maanaam euh, loolu euh, ngir tamit ak tamit di di di di di leen fréquenter maanaam di gis ni ñuy jaamoo yàlla ak li nga xam ne noonu la ñuy jàngalee ak li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom moo aju ci seenug suubu bu ko defee ak toog ak jotaayoo ak ñoom ak njariñ gu màgg gi nga xamante ne moom moo ci am ci képp koo xamante ne bëgg naa yegg ci borom subhaanahu wa taala moom mu ne wa mu nekkoon moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rahiman di ku yaatu yërmande rafiqan di koo xamante ne ku dëkk di ku yor maanam ku rafetaay nekkaale la ku rafet la maanaam euh, mooy ku nooy ba pare maanaam di ànd ak ñun àndaale bu rafet mooy rafiq maanaam kon loolu day war a jikko ju màgg tamit nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amee woon moom mooy yërmande gu rëy bi nga xam ne moom la meloon waye tamit ak nekkin bu rafet bi nga xamantene ne la daan nekk nit ñi ak bok tamit liñ ci jàngale moom mooy ne manam nit ki su la seetsee maanaam donte benn jamono la ju ndaw manam nga am doxalin bu rafet bo doxale ci moom buy wone teranga go xamne ne nga koy defal mu dugg ci biir teral gan manam loolu tamit mu bok ci ni nga xamantene non noonu la ñuy doxalee ak manam lool moy jikko ju rafet te jikkoy nit ñu sell ñi la motax nga gis ne ku melni mam gis mam ibrahim alayhi salatu wassalam comme ni nga xamne non la defal mooy fa maa labisa an jaa bi sa samimin maanaam euh, euh, nga gis ne euh, dafa am ay gan ñoo xam ne xamuñu leen xamu leen musu leen a gis tey la leen ci doogu gis ñu ñëw ñaar lañ ñu ñëw toog mu fekk leen ci kër gi mu nuyu leen ñu wax qaala salaam salaamun qawmun munkarun qaalu salaaman qaala salaamun qawmun munkarun mu nuyu leen yéen man ñi nga xamante ne ay nit ngeen yu ma yu ma xamut la waaye jàmm ngeen fii fekk ah? Eh, rek moy fa maa bisa an jaa bi ajalin samin xaru dara rek mu di dem rendi rendi rendi euh ki euh kii eh, ab sëll nak nak nag wu ndaw manam vo nga xamantene yak bi du ko taxal deugur nonu day xaw a ak noy ba pare xam nge euh mo a duuf tuti manam bokku tak xar kese manam am nak nak la rendi te ci ay nit ñoo xamne mi ngi leen di doga gis xolal jikko ju rafet jojo voilà loolu nag moo tax mu loolu bokk na ci tax yàlla jàppe ko xarit mooy jikko ju rafet jooju mu amee woon loolu tamit moo tax képp ku bëgg yàlla jàppe la xarit maanaam xeetu jikko yooyu da nga war di jikko woo tamit maanaam yooyu dafa bokk ci rafet yi maanaam euh, dégg nga mu ne waaye nag fa lamma ba nga xamante ne raa la gis shawkanaa suñu xërtal suñu sopp ila ahlina ca suñu ñanja maanaam ahlina ndax ahli ah wala boog ahaalina voilà ilaa ahaalina maanaam pluriel u ahlu la ahaali pluriel la ci ahlu ilaa naa ba ci suñu ñoñ ya maanaam suñu waa kër suñu njaboot ya maanaam ne ah nañ dem nag delluwaat suñu njaboot ya maanaam bi mu ko remarqué loolu tam bokk na ci liñ ciy xare mooy ne képp kuy ànd ak ay nit maanaam comme borom xam-xam nitu yàlla wala day war di bàyyi xel euh, humeur yi maanaam ak sentiment yi maanaam ci anam goo xamante ne danaan kii xëy na bëgg na lii kii xëy na yittewoo na lii kii xëy na nangam maanaam mu koy bàyyi xel waaye warul rek di def rek lu ñu ko waxul rek du ko xam loolu bokkut ci moo tax euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo ko remarqué boppam mu daal di koy gis mu ne xaala ci la waxee ne irji'u dellu leen mu dox leen digal pour ñu dellu loolu tamit day wane teggin gu mag gi nga xam ne moom la saxaaba yi amoon radiyallahu anhu maanaam néewuñu ko ah waaye ñun de ñu ngi dem wala yooyu déedéet maanaam ñoom ci seen xaal rek Eh, ci la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal ci yeewi leen comme niñ koy waxee yeewi leen te loolu tamit eh, teggin la gu mag koo xamante ne moom la saxaaba yi amoon radiyallahu anhum ak yeneen yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu tamit moom mooy teggin yu mag yi maanaam xam nga dafa bokk ci tegginu kuy soobu ci yàlla tamit maanaam mooy bu nekkee ak sëriñ bi warul nekk koo xamante ne eh, day def maanaam saa yu ko neexee ñëw toog saa yu ko neexee dem saa yu ko kii déedéet du mbir mi du demee noonu maanaam day day. day day day day wala boog muy dem te kenn du xam ne dem na sooy ko ne mu ñëw it tamit kenn du xam ne ñëwoon na ak yu mel noonu mbir mi tamit du demee noonu loolu bokkul ci teggin yi waaw itam moo tax sax ñuy wax naan bokk na ci teggin yi euh, sëriñ ci taalibe bi maanaam bokk na ci teggin yi mooy masalaat du toog fekk sëriñ bi taxaw masalaan wala boog euh, wala allahuma ba mu des moom moo ko jox ndigal wala yu noonu yooyu yëpp ci ay tegginu ki nga xam ne muy kii sóobu ci yàlla la mu ne ko dellul fa kuunu te ngeen nekk fii him ci ñoom maanaam dem leen seen kër ngeen nekk seen njaboot bi ngeen nekk ngeen sax ak ñoom maanaam comme toog nañoo ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki fan maanaam jàng nañ lu bëri te loolu mooy li jaanu maanaam mooy ne nitu yàlla borom xam-xam boo ko seetee munoo dem toog moom nekk moom ay waxtu wala journée wala wala ay fan ba pare jàngoo ci moom dara loolu bu amee rek mooy problème bi soit dafa nekk ci borom xam-xam boobu ñuy wala nitu yàlla bi ñuy wax. wala mu nekk ci ki nga xam ne moom mooy taalibe bi maanaam mooy ne lan mooy ne da ngaa war di mën a xam dara ci moom maanaam mënoo toog nekk di jotaayoo am nitu yi ba noppi mel ni ñi nga xam ne musuñu jotaayoo ak ñoom loolu mën ta ne war ta mën a ne voilà da war a di xam lu bees maanaam waroo mel ni ñoom nooru waroo leen nuroo ni ngeen di xalaat waroo leen nuroo jikko waroo leen nuroo doxalin loolu mooy benn mu ne mu teg ci ne kon nag dellu leen kon foofu wa allimuhum te ngeen xamal leen loolu tamit bokk na ci liñ ciy jàngee mooy neen booy fréquenté eh, nitu yàlla yi boroom xam-xam yi loo jàngee ci ñoom itam maanaam boo demee ñi say nit say say njaboot ak ñu mel ak ñi nga xamante ne maanaam nga dem ci ñeneen maanaam da nga leen a war a jàngal transmettre loolu comme li yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sahaaba yi radiyallahu anhum bi ñu jàngee fréquenté yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba jàng ci ñoom itam moom lu bari dañoo wëlbatiku dem jàngale lañ jàngoon ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu jàngal ko ña ca des loolu tamit mooy li jaadu waaye waroo nekk rek téye ko noonu rek noppi toog naan noo xam nga affaire moom jàpp ne daal mbir mi da nga ko war a téye maanaam ne da nga koy petoo loolu vraiment bokkut ci li nga xamante ne moom mooy jikkoy kuy soobu ci yoonu yàlla te naka noonu bokkut ci jikkoy yi nga xamante ne mooy soobu yoonu xam-xam waaye yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tegal leen ci ne leen wa sallu te na ngeen di julli maanaam ti bokk na ci dénkaane mooy kon jëf te comme jëf yu baax yëpp ci ronu julli lañu ne moo tax mu digal leen julli moo tax fonk julli bokk ci li nga xam ne mooy li gën a mag mu ne fa isa saa yoo xamante ne nag xadarat teew na ak asalaatu julli ah, kon nag fal yu azzin na nodd lakum ñeel leen ahadukum kenn ci yéen maanaam kon bu boobaa na kenn ci yéen nodd te loolu noonu li tax nag mu nekk fii ah, mu ne ah, Euh, li tax lii di tegtale ne kenn rek moo war a nodd te imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci bunt bii mën nga ne mais nekkatuñ ci tukki bu buñ xësee ba yegg seen kër kay bay jàngal ñoo ne bay julli kay kon kay nekkatuñ ci tukki waaye bu boobaa li imam al-Bukhari gis fii rahimahullahu taala mooy ñoom ci yoon bi bu ñuy dem julli dana leen fekk ci yoon bi te comme julli da leen di fekk ci yoon bi comme yeneen bi saasam nee na leen nag kenn nodd boobaa kenn nay nodd maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ko nii mu ne kon nag na kenn ci yéen nodd wala ya ummakum te na leen jiite akbarukum ki nga xamante ne moom mooy gën a mag maanaam mooy ki leen gën mag mooy te am na ci yeneen riwaaya euh, mooy euh, foofu mu ngi koy jàngale mu ne aqra'ukum li kitaabillah ki gën a jàng yàlla bi ci yéen maanaam kon mag bi mi ngi jublu ci magu spiritualité maanaam du mag ngir âge moom moo gën a màgg ci âge déedéet ki gën a xam téere yàlla bi ci yéen la bu dee nag ñoom ñëpp ñoo tolloo ni ñu xamee téere yàlla bi bu boobaat gën a mag ci ay at la ñuy jël bu boobaa loolu tamit moom mooy euh, charte imama yooyu daan ci gën a ñëw insha allahu taala ci biir kitaabul azan bi bu ñu yegsee ci wàllu ki nga xamante ne moom mooy imam kan moo koy nekk ak kan moo moo ci priorité ak ko nekkul insha allahu taala beneen bi ci des tamit moom mooy day wane ni julli mbooloo dañ koy def tamit ci tukki naka noonu dañ koy def tamit bu ñu nekkee ci mbooloo xadis euh, bii mooy bi nga xam ne moom la indi moom la Seydina Malik ibn Huwayris radiyallahu taala anhu nettali daañ ci ñëw ci euh, ñaari xadis ci kanam insha allahu taala euh, wala boog wala boog ñetti xadis ci kanam insha allah fi muy gën a leeralee bay wax naan ci la leen yenente bi waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam sallu kamaa ra'aytumuuni usalli xadis la nag boo xamante ne xadis bi xadis bu gudd la ñuy nettali maanaam mais imam al-Bukhari daf koo xaaj ay xaajee maanaam euh, comme ay aadaam naka noonu tamit euh, maanaam indi ko ci ay riwaayaat yu wuute waaye ñëw na ci yeneen ba ñu wane sax yeneen te maanaam Seydina imam Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni mu doon jullee ndax daf ne leen julli leen comme ni ngeen ma gisee may jullee euh, te bokk na ci maanaam ci maanaam xadis bii moo nettali jalsatul istiraaxa tamit maanaam mooy toog maanaam boo bu ñu nit ki bu sujjootee ñaareelu sujjootam war a jóg ngir taxaw comme maanaam rakka bu njëkk bi boo wàccee ba sujjóot toog sujjóotaat war a jóg toog boobu ñu toog toog bu ndaw boobu ñu tuddee ko jalsatul istiraaxa xadis bi moo ko indi waaye moo tax Shaafi'i yi jàpp ci rahmatullahi alayhi waaye mbooloo bi ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi jàpp ne déedéet xadis boobu maanaam man maanaam jalsatul istiraaxa du sunna maanaam toog toog ci diggante boobu loolu du sunna ki ko soxla mooy ki nga xamante ne masalan tànk yi day métti mu am ay mu uum wala ki nga xamante ne masalan dafa dafa sonn mu xeetu feebar dal wala mu am yaram at lu jugun jug benn yoon noonu wala yu mel noonu ñoo ñoo koy soxla te loolu mooy ne ndax Seydina Malik ibn Huwayris radiyallahu anhu moom bi muy nettali xadis bi mag la woon comme niñ ko gisee euh, te euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci mujjanteelu dundam la gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam, sallam mu nekk ki nga xamante ne moom moo loolu daañu ci gën a ñëw allah maanaam moo tax le fait que ñu gis yeneen sallallahu alayhi wasallam sallam jullee noonu toog ci diggante ñaari rakkaay jull doog a jóg toog bu ndaw boobu looloo tax ñi ci des nanguwuñ ko ndax dañoo gis ne mujjanteelu dund yenn sallallahu alayhi wasallam, sallam dafa commencé woon am yaram te loolu moom moo waraloon loola maanaam mu commencé diis looloo waraloon loola maanaam euh, toogaay booba te bu boobaa euh, daan ci gën a ñëw incha allahu taala li ci namoon rek mooy. ne xadis bi moo indi détail yooyu noonu xadis bi la euh, mooy xadis sayyidina Malik ibn al-Huwayris bi radiyallahu taala anhu xadis bi imam al-Bukhari dina ko indi war xadis numéro 630 631 658 685 818 mille 6008 ak 7246 euh, imam Muslim dina ko indi xam ñaari nga xadis numéro 600 74 imam Abu Dawud dina ko xadis numéro 589 imam At-Tirmidhi dina ko xadis numéro 205 imam An-Nasa'i dina ko xadis numéro 634 635 669 ak 781 imam Ibn Maaja dina ko numéro 979 imam Ahmad ibn Hanbal dina ko xadis numéro 15598 15601 20529 ak 20530 rahimallahu al-jami' wa ashaabu kutubu sitta nañ ko إمام باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعات جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة من باب الأذان بنت نردني للمسافر نيكي حمد مو أجتك إذا كانوا بنيك جماعة مبولو جماعة مبولو ما نمسون نيكي مبولو فك نيتك كم جزنا waxoon nañ la ko ne dafa bokk ci aada yi imaam al Buxaari te loolu bu ñu ko seetloo ci xadiis yi ñu romb yi lépp dañ koy seetlu naka loolu naka jekk maanaam imaam al Buxaari léeg-léeg mu am benn attee bu muy nar a indi ci bunt bii di ñëw xadiis bi muy wax nii donte pour beneen bunt la xadiis bi muy tànn day waxaale tuuti ci mbir mooma maanaam ci li nga xam ne moom moo nar a ñëw ci bunt bii di ñëw maanaam loolu ci doxalinu imaam al Buxaari la ngir maanaam pédagogie boobu de yow masala bi doo ko fàtte maanaam masala boobu comme da nga koy bu weesu di nga ko gis ci xadis bii di ñëw moom di ko gis ci buntu bii di ñëw mu beral ko buntu ah noonu loolu day tax ba doo gaaw a fàtte masala bi te loolu te doxalin imam al-Bukhari la pour wax la tamit ne téere bi lépp lëkkaloo lépp lëkkaloo amul dara loo xamante ne dañ naan lii jóge na ci lii léegi mi ngi wax ci lee lépp dafa lëkkaloo ba na mu jeex ci début bi ba maanaam loolu tamit beneen mbir la te loolu da gis ne doxalinu alquran la ndax alquran amul masalan tey ñu naan jóge nañ ci ji wax yàlla jóge na ci ji wax subhaanahu wa mi ngi wax ci leneen loolu amul ci alquran alquran lépp daa lëkkaloo lépp lëkkaloo non seulement dafa lëkkaloo boo jëlee aaye ak aaye ba mais saar bi ak saar bi ci tegu dañoo lëkkaloo saar bii fi mu jeexee ak aaye bii fi mu tàmb beneen saar bi fi mu aaye bi mu tàmbalee dafa lëkkaloo waaye tamit naka noonu aaye yi seen biir boo jël lëkkaloo nag beneen bi même bu dee dañoo tàqali ko te noonu la tamit xaraf bu nekk yore moo tax xaraf bu nekk ci alquran dafa làmboo ak mboolem secret yi ne ci alquran xaraf alquran benn bu ci ne làmboo na ak mboolem secret yi ne ci biir alquran loolu nag li loolu moom maanaam doxalin boobu moo nekk ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam imam al buxaari rahimahullah maanaam boobu lay la sàmmoonteel tamit ci saxiixam bi rahimahullahu taala ndax moom quran maanaam ci moom ahlul quran la Euh, rahimahullahu taala wa radiya anhu comme ni nga xam ne noonu lañ ko yàgg di leerale ci doxalinam euh, radiallahu taala anhu wa ardah wa jaala aalial firdaws wa ma waaw kon mu ne kon bu ñu nekkee mbooloo kon dañuy dañuy nodd waaye kenn rek kay nodd te gisoon nañ ne loolu mooy waxu jumhur maanaam wala jamaahir ñoom daanaka ñépp la ñoom rahmatullahi alayhim ñoom ñoo d'accord ci loolu euh, amma liqaam bi mën a wal iqaama loolu tamit masala boobu gisoon nañ ko ci wàllu ne dañuy nodd waaye dañuy liqaam bu dee ay julli la ñuy wuute tamit dañuy liqaam dañuy euh, liqaamal julli bu jot te loolu mooy waxu jumhur am maaliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne benn liqaam doy na pour julli yépp euh, dégg nga kon niñ comme niñ ko gisee woon mu ne wa kazalika naka noonu bi arafatin ca bi arafata ci arafa maanaam arafa bu ñu fa taxawee ca maanaam jamonoy at bisu at juróom-ñeenteelu bis bi ci Euh, zulhijja bu ñu taxawee arafa loolu tamit dañoo war a la dañoo war a nodd te noonu dañuy liqaam mu ne te loolu du arafa kese de mu ne wa jam'in ak bu ñu mboolo booleewee maanaam bu fekkente ne dañuy boole julli yi tamit dañoo war a lan euh, dañuy war a nodd ba pare liqaam maanaam waaye nag kenn rek mooy nodd te donte yaa ngi nekk ci tukki yii yëpp nag masala yii yëpp nag moom la bëgg leeral mu ne mu boole ci wa qawlil muazzin ak waxu ki nga xam ne mooy noddukat bi ne as-salaatu fi rihaal maanaam noddukat bi bu fekkente ne dañoo nekk ci euh, campement maanaam ñuy tukkeendoo nekk gàngoor bu bëri armée wala yu mel noonu di tukkeendoo euh, nekk ci ay campement mën nañ ne as-salaatu fi rihaal noddukat bi mën na koo wax ci biir noddam ji maanaam ne ah, julli gi ci dal yi la fi ngeen dal la maanaam dégg Euh, waaye loola mi ngi koy mën a def mi ngi koy mën a def wala boog julli gi ci wala boog ci kër gi fil laylatil baaridati ci guddi goo xam ne dafa sedd guy mooy euh, verglas am na mu sedd guy mu mu neige ba mu wala boog yooyu mu sedd guy bu boobaa noddukat bi su noddee ba pare danaan assalaat day wax ci biir nodd bi ne assalaatu fi rihaal comme niñ ko gise woon ci na sayyidina abdullah ibn abbas bi radiallahu taala anhuma mu e, ne maam que ni noddukat bi danaan e, na julli foofa fa ngeen seen kër yi julli leen fa awil matira wala ba guddi goo xamante ne dafa taw maanaam taw bu foor bu tawee maanaam averse dafa am taw bu foor foor foor ah, muy bu boobaa e, nga xam ne suuf si dafay rattax ba nit yi nangam nga xam ne du fépp taa yu mel noonu bu boobaa tamit noddukat bi danaan asalaatu fi rihal nit ñi jullee ci kër ga maanaam yooyu ay ngànt la yu tax ba nit ñi duñu julli ci jàkka ji duñu ñëw di julli mbooloo hmm. euh, lii nag euh, kon dañuy gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci bunt bi daf cee dajale ay mbir yu bari maanaam mooy lan mooy ne noddukat bi ak tukki bi ak nu tukki tukkeewoo danañ nodd maanaam loolu lay leeral fii te it bu fekkente ne circonstance maanaam phénomène naturel yi nga xam ne moom moo am dafa war a mën a tax ñu mën a julli ci kër yi tamit bi dana ko yëgle wax ne ah jarul ngeen di ñëw ci mbooloo mi même bu dee dañuy julli julli mbooloo ah, wala boog ñuy julli julli arafa wala boog euh, musdalifa ah, yëpp dañuy boole moom dañuy mën a boole bu dee arafa dañuy boole ci ci ci ci ci tisbaar takkusaan musdalifa ñu boole timis ak géej lépp mais dañuy dañuy noddu quand te danañ li xam loolu maanaam la bëgg lay leeral ci bunt bi. رحمه الله تعالى من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا مسلم ابن إبراهيم تأمم الإمام أبو عمرو المسلم بن إبراهيم الأسدي الأسدي الفراهيدي رحمه الله تعالى من جسن أي مبرم رحمه الله تعالى من جن أدنى 222 أنا جنا قد أنتبه sallallahu alayhi wa sallam imam al Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom waxoon nañ la mooy sëriñ bi gën a mag ci imam bu imam Abu Dawud mu al Farahili ñi ci des nag solo nañ ay xadiisam ci waa ashaabu kutubu sitta ku mel tamit Yahya ibn Ma'in ci sëriñu ñoom imam Bukhari solo na xadiisam ku mu ko mel Nasr ibn Ali tamit solo na xadiisam moom tamit ci sëriñu imam Bukhari d'ailleurs sëriñ ñoom waa ashaabu kutubu sitta la آه، محمد ابن يحيى الزهري أكمل رحمة الله على الجميع أكمل إمام الدارمي عبد الرحمن آه، عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي أكمل أبو زرعة الرازق أبو حارب الرازق نجنا يعني رحمة الله عليهم صلوا نجتمع mom moone won bindna ci juroom ñett téméri sëriñ yo xamantene té téréw té taxut ma jéggi bomb bi manam moy mëst kër foofu la mës a toog yàlla xéewale ko huit cent sëriñ mu jàng ci ñoom bind ci ñoom loolu xéewal bu rëy la boo xamante ne yàlla moo koy jox ku ko neex mu ne qaala xaddathana Shu'ba te moom al imaam ibnu al-Hajjaj al-Ataki al-Azdi rahimahullahu taala mooy Abul Bistaam al-Wasiti rahimahullahu taala moom ñu ngi gane àdduna quatre-vingt-deuxième année dañuy wax ba quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu ginnaaw gàddaa yonent bi saa sama xadisam ñu ngi ci kutubu sitta muy amirul muminina rahimahullahu taala an il muhajir abil hasan te mooy abul hasan euh, muhajir at-taymi moom waa kuufa la rahimahullahu taala euh, ay euh, moom muhajir abul hasan moom ñëpp solo nañ ci moom maanaam waa asxaabu kutubu sitta solo nañ ay xadisam moom des al imam ibnu maaja rahmatullahi alayhi moom mu ne an zayd ibn wahb te moom tamit al imaam abu suleyman zayd ibn wahb al-juhani al-hamadani rahimahullah taala moom waa kuufa la moom itam moom mi ngi génn àdduna 96e année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa mu wa sallam ma xadiisam mi ngi sitta mu ne abi dhar te moom mooy sayyiduna abu dhar alxifaari radiallahu taala anhu li gën a siiw ci turam mooy jundub ibnu junaadata alxifaari radiallahu taala anhu waaye mi ngi gën a siiwee ci abu dhar alxifaari radiallahu taala anhu waaye turam nag borom xam ne dañ ci wuute am nañu ne barir la tudd barir ibnu junaadat waaye li gën a siiw mooy jun mooy jundub ibnu junaadata radiallahu am nañu ne barir ibnu jundub waaye jundub ibnu junaadata daal moo gën a siiw radiallahu taala am moom mi génn àdduna trente-deuxième année euh, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñi njëkk tuub dugg ci lislaam la bokk nag euh, te bokk dëkkutoon Makka dégg nga euh, dégg nga moom Seydina Abu Zarr Ghifar radiyallahu taala moom musnadam maanaam li mu solo ci hadiis mooy toll ci deux cent quatre vingt hadith yo xamna al bukhari Buxaari Muslim rahmatullah alayhi ma doppo nañ ci 12 hadith imam al bukhari rahimahullah taala weto nañ ci 2 hadith imam Muslim weto ci 19 hadith ci hadith sayna Abu Zar al-Ghifari radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na kunnaa nañ ma an nabi ànd ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fi safar ci tukki fa arada mu daal di al muadhdhin aji nodd ji am yu ci mu nodd fa qala mu wax lo woo ko abrid seralal manam lolu moy julli tisbar ci jamono gu tàng da ngay gis ne imam al bukhari subhanallah muy wax di ci mbiru lan euh, mbiru euh, euh, kuy tukki ba pare jamono ji nga xamante ne mooy jamono yi ji nga xam ne dafa taw taw bu foor wala mu sedd seddaay bu foor xadis bi mu indi muy waxu jamono ju tànk mu njëkk indi xadis buy wax ci jamono ju tàng ngir leeralal ne la bu tàngoor bi yi méttee yenn métti yi waxtu julli yi duñ ko julli heure boobu suñ ko bëggee julli ci jàkka ji dañ koy duñ ko julli heure boobu wala bokk ñu jullee ko ci seen kër yi fu ci fu sedd moo tax mu ne ko abrid seralal maanaam mooy lan mooy xaaral jamono ji mu sedd ba jamono mu gën a sedd maanaam bul bul moo tax bu canicule amee période yooyu xam ngeen ñun suñu dëkk yi bariwul lu muy am canicule mais am na dëkk yoo xam ne dañuy am canicule waa su dëkk yi xam ne dafa bari ay désert euh, euh, masalan man mos naa cee gis benn euh, kooru daaw bi nga xamante ne Dubaay la woon wala fu mel noonu loolu yaakaar naa Dubaay la woon nga xamante ne 11h dafa jot euh, affaire bi affiché euh, maanaam ci station service bi 11h euh, affaire bi température bi affiché 45 degré maanaam xoolal kooku tey bu tisbaar jotee ban degré lay nekk diggu njolloor loolu dañuy dañuy seral maanaam du ay 50 50 jàpp 55 degré lay doon. Mm-hmm. bu bu heure boobu yeggee loolu doo doo gis doo gars yi du ñu teel a maanaam du génn ko duñ génn julli ji ah voilà dañuy seral julli ji voilà ci ci condition yu mel noonu dañuy seral bu julli ji dégg nga comme niñ ko gisoon lool gisoon nañ ko ci bi ñu ci tollee euh, walillahi alhamdu wal minna euh, dégg nga euh, mooy baabu at-tabrid bi zuhri gisoon nañ ko ci kitaabu Mawâqît kitaabu Mawâqît sala euh, dégg nga mu ne ko seralal fu ma topp nag araada mu nam an yu addina mu noddaat maanaam mu toog tuuti xam naa jàpp ne kon war nañoo nodd lii comme que julli gi na a a julli maanaam moo gën maanaam a teel a julli gi rek maanaam muy mu wax la woon ñeel ko abrid waaye seralal su ma topp araada mu nammaat an yu addina ci mu noddaat fa qaala mu waxat la woon ñeel ko ne ko abrid seralal xattaa mbete saawaa mu daal di yem ak zillu keroog at at tuluul mooy euh, euh, euh, kii bi doj bi maanaam mooy doj bi moom maanaam ba nga xam ne doj bi am na nag ker ker gu gu xaw a yaatu gu ñu mën a taxaw julli loola ba mu amee nag ci la doog a fa qaala wax nag annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna maanaam bu boobaa mu daal di daa mu ne ñu ci booba nag lañ daal di doog a julli maanaam Euh, yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daal teg ne indi na wér boobu mooy shiddatal xar tar taruk tàngoor min fayhi jahannama ci uppum jahannama la jóge hmm. maanaam mooy canicule yooyu uppum jahannama la jóge comme niñ ko gisee woon ne jahannama dafa am euh, dafa dafa dafa jàmbat borom bi subhaanahu wa taala ne ko lenn li ci man mi ngi lakk mi ngi lekk leneen li ci man nee na mu daal di koy utal ñaari nokki waay nokki waayu ci été bi ak nokki waay ci hiver bi loolu li gën a tar ci tàngoor muy am ci été bi li gën a tar ci seddaay mu am ci hiver bi fi gën a tar ci bërëb yi ci tàngoor mooy safara fi gën a tar ci seddaay ci bërëb yi mooy safara hmm. moo tax safara am na partie yoo xamante ne dafa sedd guy day lakke maanaam seddaay boobu di lakke la foofu tamit am na ci biir safara moo tax mbugal bi ay façon façon façon la. wala lañ ci yàlla musal dégg nga xadis euh, bi gisoon nañ ko xadis numéro 535 ak 539 daañ ko gisaat incha allah benn yoon imam Buxaari dana ko indiwaat benn yoon incha allah euh, rahimahullah incha allah taala dana ko indiwaat xadis numéro 3258 imam Muslim indi na ko xadis numéro 616 imam Abu Dawud xadis numéro 401 euh, imam Tirmidhi xadis numéro 158 imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 21376 21441 ak رحم الله الجميع من bi بالإسناد المتصل في أول الكتاب لا يحدثنا محمد بن يوسف تمام الإمام أبو عبد الله الفريابي ki ci des Abdullah la tudd waaw nañ ko ah. biñ ko njëkkee gis moom mi yéen a koy fàtte ah. biñ njëkkee gis Muhammad Yusuf gëj nañ ko gis nag depuis xadis numéro 274 gisuñu ko mais bañ ko njëkkee gis waxoon nañ ne la ko jaawale ak Abdullah ibn Yusuf at mu buñ ko jaay ak Abdullah ibnu Yusuf kii Muhammad ibnu Yusuf kee Abdullah ibnu Yusuf la tudd dàkkantaram nekkoon Abu Muhammad kii Muhammad ibnu Yusuf la tudd dàkkantaram nekk Abu Abdullah voilà kii mu al-Firyaabi euh, rahimahullahu taala euh, moom euh, mi ngi gën a àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna deux cent douzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu nekk bokk ci sëriñ yi gën a mag ci sëriñu imaam al yi imam al Buxaari yi rek moo solo ci moom euh, waaye ñeneen ñi dañoo solo ay xadiisam maanaam euh, dégg nga mooy dañoo solo ci ku solo ci moom euh, moo tax ay xadiisam ñu ngi ci bu sitta mu ne qaala xaddasana Sufyaan te moom foo ko dégg maanaam dafa bëri lu muy solo Muhammad ibnu Yuusuf al-Firyaabi ci saxeex bi ci ñaari sëriñ la solo kii la mooy Sufyaan ibnu Saïd al-Thawri moom bu ne Sufyaan xaddasana Sufyaan Muhammad ibnu Yuusuf alfiriyaani ci sufyaan sawri la solo keneen ki ci des moom mooy al imam al awzaa'i ñaar ñii ñoom la soloo ci saxee ay xadisam dégg nga euh, mooy sufyaan ibnu said ibnu masruuq euh, ibnu euh, sawr as-sawri rahimahullahu taala muy abu abdullah al kuufi di imam bu màgg boobu waxtaan nañu mbiram mi gane àdduna 97e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 161e année ginnaaw Euh, imam al Buxaari am na boo xamante ne jour bi mu ganee àdduna guddi googu mooy guddi gis imam Sufyaan as-Sawri génn àdduna mooy kan Muhammad ibnu Salaam al Bikandi aha rahimahullahu taala dégg moom mu ne abu abdullah ah, Xaalid ibn Mihran al Xaza moom waa Basara rahimahullahu taala an Sufyaan ibn euh, Sa'iid moom waa Kuufa la dégg nga rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent quarante et unième ñu ngi ci gis nañ ko léegi an Maalik ibn Huwayris gis nañ ko léegi radiyallahu taala mooy saxaaba boobu radiyallahu taala anhu qaala nee na ataa dikk na rajulaani ñaari nit annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yuriidaani ñu ngi nam bu safara tukki fa qaala moom annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ne yéen ñaar ñi xaratuma a génn fa addinaa na ngeen nodd summa topp aqima na ngeen taxaw manam fi dafa wax ay nit te fekk ñamuy wax manam moy mom ak ñamu andalon waye sauf que ñom ñaar ñoo ñëwoon ci kanam yenen sallam yenen ne len ne waa ne ne seen normal bi maas ak kese radiyallahu anhu ne len na ngeen dem na ngeen and ak seen gaay yi dem manam mais sino jëmmi hadith biñu gisoon sank la deeng nga euh, deeng nga mu ne kon nak na ngeen dem xarit so leen genné fa adina na ngeen noddu manam kon li manam da ngay gis ne imaam al-Buxaari mënoon na indi riwaaya bi ci xadis bëri mais imaam al-Buxaari léeg-léeg day def noonu ngir nga nga nga seet sam xel mu baax maanaam ndax fële bu ko waxee da nga nag ah comme que bu ñu génnee te yéen saa soxna leen boo leen demee da ngeen di julli te na kenn rek nodd ah kon ndax dinañ xam ne ah comme kenn rek a war a nodd kon ce qui veut dire que même ci yoon bi kenn nay nodd. manam nga ñëwal sam xel xamé ci loola ni li lu la bëgg a junj ne la hadith bi dañ ci jàngee euh fi nak mu indi ci lo xamantene day tek la né ci yoon bi dëgg-dëgg daf leen tamit na ngeen di julli moy bo leen génnee day nga fa addina summa top aqima ngeen liqaam day nga summa top nak li ya amakuma kuma na leen jiite ak barakuma ki gën mak ci yéen manam li tax mu wax leen ki mak ci ñoom moy né ñoom ñoom ñoo gënoon nak Euh, ñoo maanaam ñoo tolloo woon ci liñ xam maanaam ndax ñoom ñëpp ñoo nekk loo woon ci yenn saa sam vingt jours yi kon ki gën a mag na na jiite dégg nga euh, maanaam lii tamit dañ ci xame ni loo xamante ne benn nit maanaam euh, maanaam nit ku ñëw ci turu mbooloo dafay yor àttey mbooloo mi loolu moom moo tax ci xadis bële yeneen bi saa salaama jëfandikoo baatu boo xam ne mbooloo la alors que fii mu jëfandikoo duel bi maanaam yéen ñaar maanaam ngir lan ne ñoom ñaar li mu wax ak yeneen saa sam li mu wax ak ñoom mooy exactement la mu wax ak mbooloo mi loola tax képp ku ñu ku ku kuy wax ci turu mbooloo itam bokku teg ki dul wax ci turu mbooloo kiy wax ci turu boppam moo tax kii wax ci turu mbooloo warta maanaam may boppam ay largesse yoo xamante ne kii wax euh, ci turu boppam da koy may boppam dégg moo tax dégg euh, kon fii lii ko li muy tekk mooy ne kii tukki day nodd dégg nga moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah indi xadis bi fii di leeral ne kii tukki euh, day nodd euh, xadis bi gis nañ ko taxrij bi léegi imaam al-Bukhari rahimahullah taala euh, wala ñu yem wala mën nañoo gisal xadis bi waaw kay mu ne qaala bi isnaad muttasil bi awal kitaab la Muhammad ibn al-Musanna bi nañ ko gis de mooy imam bu mag boobu Abu Musa az-Zamin Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi euh, muy imam bu mag boobu nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala man waa saabu kutubu sitta ñëpp a soloo ci moom muy mbokk ci juróom-ñeent sëriñ yi nga xam ne waa saabu kutubu sitta ñëpp a jàngee ci ñoom directement ba pare sol jàngal jàng soloo seen ay xadiis maanaam euh, moom mi ngi gane euh, àdduna euh, cent soixante cent soixante sept cent soixante septième année génn àdduna deux cent cinquante deux ginnaaw ga dayante bi ok sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy waa basara xadiisam yi nekk ci kutubu sitta maanaam moom sax sëriñ la ci waa asaabu kutubu sitta ñëpp qaala mu ne xaddasanaa abdul wahab te moom mooy al imam abu muhammad abdul wahab ibnu abdul majid ibnu salt hmm? Euh, moom it rahimahullahu taala imam waa basara la mi ngi gane àdduna cent huitième année génn àdduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu atay naa ñun dikk leen ila nabi jëm ci Yonent bi sallallahu alayhi wa wa nahnu fekk ñun shababatun ay ndaw lañ shababatun ay ndaw lañ mutaqaaribuna ñu jege wan ko ndax moom mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu mais jamono jii muy nettali xadiis bi boobu mag la waaye jamono ji muy xew-xew bi di am booba ndaw la dégg nga mu ne ñun ñii ñëpp dañoo jege wantoo ñu gis ne kon mbooloo moomu nga xamante ne diggante ñetti nit lañ ak fukki nit ñu ngi nekkoon ci ay ndaw maanaam ay ay jeunes woon loolu tamit day wane ni ni ndaw ñi dañoo war di sóobu ci yoonu yàlla di seeti ji nit yàlla yi ndaw ñi warul ñoo maanaam lépp loo xam ne xew-xew maanaam mbiru diine la lu war a taxaw ñoom dañ cee war a def te it bu sóoboo ci yoonu yàlla ci ndawam maanaam kooku mbokk sóobu wuñ gi day ànd ak ba ndaw ñaari lu muy dugg day ànd ak fugg day ànd xeetu yenn xeetu cawarte gi te loolu su ko defee ba mu nekkee ndaw bu nekkee mag yàlla dana ko defal sutura gu maanaam te tàmbali gu rafet day wane ak mujj gu rafet mu ne mu taqaar ba ñuy jegentoon mu ne fa aqam naa ñu daal di toog ñu daal di sax ay ndaw fa moom ishriina yawman ñaar fukki fan wala laylatan ak guddi maanaam ndax ñaar fukki fan ak guddi li muy maanaam ndax eh, fan ak guddi yi ñoo tolloo maanaam ndax ñaari fan du ñu tegaloo benn guddi du am allahuma ba mu des ci dëkk yi nga xamante ne muy pôle yi par exemple dégg nga wakaanate mu nekkoon rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wasallam rahiman di ku yaatu yërmande rafiqan di neex neex dëkkaale ànd neex àndandoo mu ne fa lamma ba xam ne zan na njort na an naa naka ñun nga xat dëgg-dëgg istaxay naa xemmem nañu ahla naa suñu njaboot aw wala boo dëgg-dëgg istaq naa namm nañu maanaam <laughs> mooy xemmem nañu rek sa ala naa ci lañu am manteñ maanaam lii dangay gis ni euh, sikki sàkka bi kon ci Abdul Wahab la jóge ndax lan ndax beneen riwaaya bi istaq naa la waxoon mm-hmm. ah mm-hmm. Euh, euh, gisoon mooy xadis numéro 628 bi mm-hmm. mu ne fa lamaara a shawkana fa lamaara a shawkana ba mu gisee suñu xemmem maanaam kon nga gis ni sikki sàkk bi ci ban expression la kooku mi ngi jógee ci Abdul Wahab Euh, ndax bi nga xamante ne moom la riwaaya euh, bu mm-hmm. moom dafa moom sikki sàkkawul noonu bokk na ci ni ñuy xàmmee sikki sàkka ndax kan mu fan la problème bi fan la affaire bi jóge maanaam mooy da ngay comparer yi boo comparer chaînes yi nga xool à partir de ban niveau le problème bi am ci ngay xamee ne kon kii moo am problème bi maanaam ñii amuñu woon problème mm-hmm. euh, dégg nga kon nee na sa naa ci lañu laaj am man ci mbiru ñi nga xam ne tarak naa bàyyi nañ leen ba àddanaa suñu ginnaaw waaw ñi ngeen bàyyi seen ginnaaw moom luy seen mbir ñoom lan mooy seen xew-xew maanaam ak yu mel noonu maanaam ngir laaj ñu ngir mën loolu tamit bokk na ci nit ki balaa ngay digal dara ci ñeneen ay nit wala yooyu war ngaa xam seen xaal ba pare war ngaa xam ñoom nan lañuy doxale ak yu mel noonu dégg nga fa axbar naaw te lañ ko xabaare xaala ci la wax ne irji'u dellu leen kon ilaa ahlikum faqimu te na ngeen sax fihim ci ñoom wa'allimuhum te na ngeen xamal leen wa muruhum te na ngeen leen di digal dégg nga ngeen xamal leen ngeen jàngal leen ngeen digal leen lool tamit jàng gisoon nañ jàngal yi ci suñu hadith bi ba maanaam bi ci tole hadith numéro 628 man legi gisoon nañ wa zakara mu tudd ashyaa ak ay mbir yo xamne ahfazuha euh mokal nako tay amna yo xamne mokal nako mokkal aw laa ahfazuha wala bok yeneen yo xamne ne mokkalutuma ko am na yu bëri yu mu tuddoon naan dégg leen leen lii def leen nii def leen nii maanaam da leen a yaboon loolu tam bokk na ci ne nitu yàlla boo ko seetsee wala borom xam-xam maanaam waroo faa jugee te jàng te te te te te jàngalu la waroo faa jugee te tegu la mais nag musiba gépp musiba mooy ñi nga xam ne dañuy dem toog ci jotaayu nitu yàlla ci jotaayu borom xam-xam yi ba pare nekk fay waxtaanee mat su démb bi euh, prix wu euh, marchandise yu bees yi léegi lii la euh, marché bi temps yi affaire dafa cher mbay mi e, gàncax gi saxagul commencé naa taw ak xeet yu mel noonu di waxtaanee ay mbir yoo xamante ne xaqiqatan euh, après maanaam ñoom dañuy neenal jotaay bi maanaam dañuy neenal temps bi ñu waroon a am profité ci borom xam-xam bi ci nitu yàlla bi maanaam loolu mooy musiba gépp musiba waaye tamit nit yàlla bi tamit war na di def tamit maanaam borom xam bi tamit war nay def tamit di di di di bañ a téye li maanaam di leeral nit ñi leen soxla ak di leen ko jàngal bu gisee ci ñoom. seen xaal selon seen ay xaal mu di leen wax li mu leen war a wax mhm. mooy comme ni yéen bi sallam selon ñan lay waxal mu mu xabaar mu mu am ay conseil ak ay ay digle yu mu leen def doxal waaye mu ne leen wa sallu te ni ngeen julli kama kéem ni nga xam ne raaytu mu ne noonu ngeen ma gisee usalli may jullee loolu tamit mooy wane ni julli dañ ko war a def ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di defee ndax noonu la baaxee doo ko defee noonu la neexee mhm. te noonu la gënee fa isa saa yoo xam ne xadarat teew na asalaatu julli daan ci gën a ñëw insha allah teew na asalaatu julli fal yu asdin na nodd lakum ñeel leen ahadukum kenn ci yéen na kenn ci yéen nodd wal ya ummakum te na euh, na leen jiite akbarukum ki leen gën a màgg te lii comme que dañuy nekk ci tukki moo tax euh, kon faaw ñu nodd mm-hmm. loolu moo tax imam al Buxaari rahimahullah indi ko ci bunt bi